waaw ne ña nga xam ne jébbal na wañu wa kanamam hmm. ila laa jëm ci yàlla hmm. woote moom moom sunu ajëra watal la waxaade hmm. tam saka jàpp na sunu rawati ci buum alwasqa ba daa aji dëgër way da daa jëm ci yàlla a ah, jëm na ci yàlla a ah, xamatu ko mu war a mujjee mbir mi waman kafara ku weddi na walaa yow seen ko yow yonente bi bu la jàqaloo walaa yow seen ko yow jullit bi bu la jàqaloo ku mu weddi waa ji nga xam ne ji ñu dafa weddi laatee elee naa jëm na ci ñun maa jëmoom seen delluwaay na bu moom dañ leen xamal ma ci nga xam ne amuloo jëf nañu ko mhm. dina laa rek yàlla alimul aji xam la bi saati si dóor yi ci mhm. li nga xam ne moo nekk ci biir xol yi mhm. borom bi tabaaraka wa taala xam na ko dañu koo fay gaa yi nga xam ne dañuy weddi dañuy beewu dañoo tàgg ne diina ñu matte moom dañ leen bànneexul te àddina mii xali leen lu néew su ma noppatu mu topp ñu loro looleen ci àllaaxira laatabi jë ci moom xalitin moo xam ne mii ni mu tar la alayhi salaam a leen laajoon man xalaxa ko bind asamaawaati xatumaane wala arda suuf dañoo xool na danañu wax ne allah mbooloo allah yàlla. Mhm. mooy ki nga xam ne kii moo ko bind. Mhm. kon ne leen. Mhm. allah alhamdu mboolem xam ne. ñeme na waroon a wax ci taw yi. ñun nit ñi wax ko. ba léegi xam ne naa ci ne. gaa bu ñu dañuy wut yàlla. xanaa da ngeen ko nangu du topp kay. ba nekk ak sama laay ak sama métti jom. laay moo dañoo xamul ne. allah moom ne boo ko nangu de ci taw yi. da ko war a nangu lu gën ci jëm. allah lillahi ñeel na yàlla waa mi sumaawaat li nekk ci asamaan wala ak daal suuf dina laa naka yàlla boo moom yàlla alxani moo la aji doy wala ci léemam la alxamidu mooy suñu sant ci liggéeyam itam wala wa andamaa. Mhm. bu fekkoon ne li nga xam ne. fil mhm. ardi nekk na ci suuf. mu mhm. sa jaratin ci garab yépp. ak allah man dafa nekk te ay xalima. li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf ci garab yépp. mooy ne garab bu ndaw bu mag. ñaar suuf sax wala mu nekk xalima. ñu def ko mu def xalima. kon xanaa bu nekk na jëkkër mun si gërëm ci garab ak xalaa mun dafa nekk di ay xalima wala doole day ji ngeen xam bu ma dooma ne na yeneen dara ñeneen yépp nekk xale bi ñu di ko dundee. yépp dañ leen dundee ba mu jeex tàkk. daa ngay gën a jeex tàkk. Mm-hmm. xale bay jeex ñëpp jeex tàkk. Mm-hmm. damaa leen ko def di jeex kalimaat laay kàddu day dem ba kàttanu yàlla yi di jeex. Mm-hmm. xam-xamu yàlla di jeex. may mm-hmm. yàlla di jeex. Mm-hmm. xam-xamu euh, euh, xéwal yàlla yi di jeex. lépp loo xam ne ñu ngi ko askanee ci yàlla daal bu dee xam-xam. wala muy kàttan. wala muy xàtte wala muy dogal wala muy mën-mën yi. loolu de bu ñu jotee bu ñu jotaayoo wala dañ koy bind. su ko defee garab yéen ñu jël leen dem ñu xalim ba. géej gi ñu boole géej gi nga xam ne boole ko yéen jël ñaari géej. def ko muy daara. waaye dem nañu ko bindee dem jëm kàttan. dina laa ne yàlla na suñu aji noot la nag. Mm-hmm. te loolu la ñu ngi bëri bëri. Mm-hmm. teewul yàlla ko téye ci loxoom. parce mm-hmm. que aji noot la ko. ak teewul aji aji ñoo lay itam. xam ne lépp léegi daal di leen xalaat. nee na bind leen nii ñu ngi koy yombee. bind leen nii ñu ngi koy yombee daal. nee na maa xam ko déet bind leen yéen doomu aadama yi mm-hmm. wala mën ko bi caa ngeen dekkal leen yéen doomu aadama yi ilaa mm-hmm. kanatum lu loxo rek waaye kanatum ni ki benn bakkan ay waaxat ci ni benn mm-hmm. nee na bind kenn nit ak dekkal kenn nit moom bind nit ñi yëpp ak dina laa la nga yàlla sax yoon aji dégg la. nee na buñ ñëwoon aji gën lay dem. ala ma la ma xamuloon. dina laa la nga mm-hmm. yàlla yoon gi dana tàbbal àllee la guddi. Mm-hmm. dina ko tàbbal ci naar ci bëccëg. bu yoon gi dana tàbbal. Mm-hmm. ak naar bëccëg. ci léegi ci ci léegi ci guddi. asamara moom yàlla tàggat na. asam sa jant ba xamar ak weer. te luñ kat ci ñoom. nit yi mu ngi daw. di laa yi lañ jëm ci biir mën a mën boo xam ne jëli jëli tudd la. waaye laa la nga yàlla. ak yow aji dañ ko mbëlal maa ci la xam ne tàmbaloon nañu nañ koy def. daalika li nga xam mm-hmm. ne yàlla feeñal na ko ci kàttanam moom la li tax ba li tax yàlla mën mm-hmm. ko yàlla laa na ko yàlla mooy moom mm-hmm. alxaq mooy dëgg mooy mooy dëgg dëgg nee nañu ni ko war a waxee rek noonu la mel dëgg mooy bëgg a dëgg ci sa tànk ñi nga xam ne ni nekk ci dëgg ñooy ko fane tànk dëgg ko dafa nekk ci kaw jaww ji ñi nga xam ne ni nekk sa tànk di dëgëree nag su fekkente ne da ngaa nekk da ngaa da nga ko dëgg nee na loolu moo tax ñu naan mbir mi dëgg la su lépp nekk dëgg rek dafa am tànk loo xam ne ni du dëgg rek amul tànk boo gisee borom bi tabaaraka wa taala mu xam ak yii de mhm. waaye nag daanaka rek yàlla moom ak xaq moom mooy da woo moom rek mhm. ak xaq mooy dëgg mhm. dëgg yi ñuy nit ñi yëpp ñu bëri bëri bëri bala ñoo doon dëgg rek dañoo am lu leen baaraat ci yàlla waaye lépp loolu lépp loolu gis amul dara lu ko ba lu ko boole yàlla rek loola nee ma paasin lay doon loolu bi mu nekk dëgg rek. bu mm-hmm. mu woon dëgg la rek. Mm-hmm. am na loo xam ne nii maa ko ci biir dara yàlla gi. Mm-hmm. foofu la fa lay jëlee dëgg. a nag maa naka laa xamante doon nañu ngi doon yéen yéen yàlla. albaat lu mooy noonu lu ngeen jaamu lu mooy yàlla rek. nee loolu la mu woon moom rek. alal lii mooy buur bu daal daal alam tara xanaa xamuloo anam bu dem naka gaal ajuree dana daan fut boori tijjee bi ni'matillahi ci xewalu yàlla dana gaal mi ngeen gis ci xewalu yàlla lay dawee de ndax da ngay da ngay jëlewut goj boo xam du mat kilo nga sànni mm-hmm. ko ci ndox mi boo ko sànnee leen mu diis ci biir waaye nga jël gaal boo xam ne génne ay tonnage yu bëree bëri moo ciy nekk nga da ko dawalee ci géej ak géej réew ak réew mu am weer ñaari weer ñetti weer ci yëpp mu nekk ci kaw ndox mi sax mu dóob mais loolu ni'matullahi la lu ko ngir mu wan leen mu naa yaatu ci kéemaanam yi mu ne bépp àll gaa ji ay kéemaan li ko defal baale ñaar bépp mu naa koon yoo xam ne bii ne mën naa mu ne mooy ko xam ne sa saa koon la mën a sant xewalu gaal googu le man ni maa ko tàggat ci suma xewal ba mu mën a daw ci kaw géej ga hmm. soo xamee ne yëg na hmm. soo xamee ne li ñu ne war nañ ci gaal googu le hmm. ba du fekk leen ca dèjà xas yoon boo xamee ne muur na leen moo jël nduur daf la ni ba mel ni ay ker daa xamee ne dafay mel ni yoo xam ne yéen dafa ker daaw ñu ko a allah yàlla moom si ne dakoy sellal loolu ñaar ko addina diin nga xamee ne diin na leen day joxe xam ker dina ñu commencé nag di ñaan yàlla. Mhm. da ko eh, defee na seen diina. Mhm. ay ra dugg guloo gaal. Mhm. bu fekkee lu mel noonu la. waaye ñàkk naa dugg ci oto boo xam ne bii dañu bëgg accident. ba ñu doon dal. walla naa jaa bu mel ni mu ne leen itam ba di jëm ci jéeri ji. xam nga loo xam ne ci ñoom. mokkata bi du ko xam ne kii dafa dugg doomu. Mm-hmm. moom de ngëm yàlla dama demoon ci biir gaal ga. Mm-hmm. am na lu ci dal. Mm-hmm. waaye nag léegi jaxase na ko ak kéefar. waaye am na ñu koo xam ne kii nag. moom boo wàcc ci gaal ga. nekk ci jéeri ji nag. ñu dellu yore ak kéefar boo xam ne kii nii bu tëdd la ci nag. mooy la ma mën a ñëw liggéey bi doyat naa ci dara yi. mu mm-hmm. ne waaye indaa ko lu xattaale na leen nax nax nax waa mm-hmm. ko. su ko koo xam ne weddi naa ko lu xéwal ni. mu ne waaye suñu aay ak koy weddi. nee na koo xam ne kii dafa naxu. Mm-hmm. dafa mën a naxe. xattaale naxe naa ko. su ko koo xam ne weddi naa ko lu xéwal ni kooku rek moo koy weddi. yaa ayyuhaa naas yéen nit ñi. ñëwee. ñu taxaw na ngeen ragal rabbakum seen borom. yaa yow bi. boo boo xam ne laa yi gis ngeen. nee na du du fay. du jëriñ. waaye du wala di ci doom ji du ko jëriñ dara. nee na bi nga ñëw bis boo xam ne bii nii. bàyyi bu taxaw wala mbooloo di jaajëm kilifa. foo moom. Mm-hmm. jaarale mu da aji jëriñ. Mm-hmm. Ah, mu aji fay. ak wàllu li ñu tuddee moom de la soriwoon dara. Mm-hmm. koo xam ne ci nga dañ koy jël. ba taxaw ci wetu baayam. wala ci wetu yaayam. mën da jëriñ yaay ja dara. mën da jëriñ baay ja dara. léeg-léeg nga xam ne bii nii. dañoo jàpp dafa am benn askan ak diine boo xam ne diine nekk na ci seen su boobaa nag kon dañuy delluwaat ci wala dina aw na wata baatam ci ñu jëkkoon bi imaanin alxaqnaa bihim zuriyaat zuriyaat ko amaa alam naa min amali min sayin aajo yére moom dafay wax ne bu fekkente ne bàyyi ba def ñu gëm yàlla def lu baax ñu ne jëlee ci tiyaaba joo xam ne jini ju rëy la doom bi ñëw gëm yàlla def na lu baax waaye bàyyi moo ko ëppale doom bi gën a daan yëkkati dara jaam ba mu toll ak dara jaam bàyyi ba inna wa'da Allahi naka dogal Yàlla haqqun aji sax la. falaa taxurannakum bu nax leen. alxayaatu dunya dunya bi aji njëriñ bu jeex. falaa yaxurannakum bu nax leen. billahi Yàlla alxarru seytaan yi nga xam ne nax naa koon la. inna Allaha naka Yàlla ay doon nekk na ko moom. yàlla lu ko xam-xamu bis penc. bis penc kañ lay. bis bañ ci kañ lay ñëw nee na loolu yàlla rek moo ko jagoo waaye nasilu moom yàlla muy wàccee aw xayma taw nee na taw boobu borom bi tabaraka wa taala moo koy wàccee wa yàlla moom yàlla dina xam maa la nga xam dina dina xam nekk li jëri yum li nga xam ne moo nekk ci ruum loolu la borom bi tabaraka wa taala moo ko xam ñu koy bëgg a firee nag ne borom bi moo xam góor la wala jigéen la waaye su boobaa firee dafay xat parce que léeg-léeg ñu ngi koo xam ne kii yàlla may na ko xam-xam mu wane ne doom ju góor la mu jur dëgg góor wala mu mu jigéen la mu jur dëgg jigéen yàlla kay li mu wax ne moom la xam ci rukum mhm. gën nay yaatu mhm. góor la wala jigéen mhm. moom daal loola la nekk ca ma kañ la ci toq man noonu la ci toqee ma kon lay jaar ma bu juddoo nan lay mel ma dina juddooni ciiran ma bu juddoo ci ku fekk lay doon wala du fekk ma lan fa lay lan lay jaaree ba kexe ma xeet bu mu yëpp yan xeet lay doon su ma kan kenn lay dee mm. ma di ma toppkat yàlla lay doon mm. wala mooy kat yàlla lay doon mm. loolu yëpp yàlla xam na ko ci biir réewum nga xam ne mun jë mu nga nekk ci réewum bu fekk loolu bu dóogul loolu nag ci dëkk dëgg moom doomu aadama mu xam-xamam bi ak ñëwfuli amaa bi ñu bëgg a bindee ne yàlla moo xam góor la wala jigéen la su boobaa وما تدري دور دقم نجم بكن ماذا تكتب لن لا يفعل وقد انهلك amul benn bakkan boo xam ne bii nii xam wóor na ko moom ci waxam ne man nii àjjana laa jëm wala wala safara laa jëm léeg-léeg nga gis koo xam ne daara dana ko baaxee mu xam ne bii sàngam de àjjana la jëm bu baaxee ko mu xam ne bii sàngam de bu ko yàlla jégal safara la jëm amaan moom ci boppam na fan la jëm loolu mooy ñëw la mu fekkee ne xam na ko وما تدري ما قوم نفسك لا يعلم من تهم لا تموت لا ليه يسأل جيرانم تهم barab sangam lay dee léeg-léeg nit wax ko xamaa yow si boppam ngay dee loolu moom doo ko xam dina laa naka yàlla ma li moom aji xam nañ lépp nag xat dém aji dañ kumpala ci itam dana waaye yàlla nag moom lépp xam na ko ñu ne itam dañ la ci kumpa loolu moom dëgg la. mbokk yi nga xam ne ñu ngi wàcc ci makkatal makkatal mukarrama. bokk na ci saa yi nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. daan na ko dundee. daan na ci wax ay ay nee naa lu benn waaye boo ko bokk li ko passé saa yi leen am na koo xam ne si daan bëri jàngi ko. moom rek sax mu daan jàngi ko affaire. bëri woon bàkkaar lool. waaye borom bi subhanahu wa taala ba ci dee jéggal. jéggal bàkkaaram booba. ngir bëri boo xam ne bëri ñaan boo xam ne jënd bëri leen na ko jàngi saa yi. yéen tamit daan na faral di naaf la ñaar wàcc yoo xam ne benn bi ñu ngi koy jàng ci Alxuraan bi Injiil. benn bi mu jàng ci Tabaraka. daan na ci bind si ba itam bind si ba. alif laam miim. tanziilul kitaabi wàcce téere bi. nee na laa rayba dina sikk. téere bi ci nekk. tanziilul kitaabi. naka bi naa leen ci kenn ci góor gi nga xam ne mooy borom أن يقرأ من بعد الذي عليه السلام محمد وهم يدعي القرآن بل لم يكونوا من القرآن الحق دجل من ربكم مستكبرا لتنزل من جواله أو من أولي من قبل ما أتاهم بكل من من نزل الجنة أجوال من قبل جسد لكم لا لهم ما في يوم يحدث هذا الذي لكم لذواتك خيره فخيره من قبل لجيكم وفي يوم في منك الله يعلم مسلم ويدعي خلق لقد جمع السماوات والأرض والأرض وما بينهم maa li nekk ci léegi. bind na ko fii ci guddi ay yaayu ci juróom hm. benn fan. su ma sawaa toog mu yëkkati ko mu mu mu teye. su ma sawaa toog mu teye. ma ci mu ci sat nag. alal xam hm. sa xaras. soo ko demee xaras itam. mu jël sat nag mu yoree ko di takk ci kaw xaras moom lay yor xaras itam. yàlla moo bind asamaan yi ak suuf. Hmm. ak li nga xamante ni moo nekk diggante asamaan ak suuf. Hmm. mu ngi ko bindee ci diiru juróom-benn fan. Hmm. amaa aras. ba nga xam ne bind bind na loolu ba pare. booba la yëkkati kàttanam teg ko ci kaw aras. aras itam mu ngi liggéey ko comme ni nga xam ne ni ñu ngi asamaan ak suuf. maa la ko ñaanu leen. yéen yéen fa di. ñu ngi mhm. li ci yàlla. ñu ngi leen aji ñu ngi joo xam ne jëlee mooy ñuy dimbale. Mhm. waaw su ngeen di jox yéen aji di joo xam ne jëlee mën na leen aji ngeen dugal. Mhm. am naa tudd këram wax naa leen di ngeen fàttaliku. borom bi tabaraka wa taala ñu dëgëru dana doxal al awra mbir ñu ne sama ñu tukkee ci kaw ñu ne sama ñu tukkee ci asamaan ilal ardi jël ci kaw nee na yàlla mooy dogal mbir dogale ko ci asamaan bu ñëwee mu sottee ci kaw kaw su ma yaa rajo Fatou Ndiaye ma dellu yéegati. àll mm. yi jëm ci moom. Mm. ku yaa ñun ci biir yoo xam ne kaa nekk na lu ko daal kenn jëm la. àll ba tey jii ci leer. mu may ci li nga xam ne taw a doon yéen yéen a koy yéen a. Mm. nee na yàlla mooy dogal leen di ca kaw. su ko defee mbir moomule. mu ñëw indi ko ci kaw suuf. sottalee ko ci kaw suuf. ba nga xam ne na la ko waxee woon ci kaw. àll kaw suuf bi ak suuf. su fekkee mbir moom la waxee woon ci kaw bi laa sottee ci kaw suuf. su ko defee mu bàyyi ko ci kaw suuf. mu dugg yàlla xëy na jotee. nga xam ne yàgg yàlla dana leen entrepreneur bu ko defee mbir moomu mu yëkkati ko mu delluwaat ca kaw ñu ñu taal ko nga li ci jëm àjjana mu jëmale ko àjjana li ci jëm feneen mu dellu ko mu mu jëmee ko fa mu jëm waaye nag boobu bi nga xam ne mooy dogal dogal boobu la. ah li mu xëy ba. mooy ay xam comme que. ba saadate ak seere. alhamdulilah mooy góor gi la aju nag. arxiim mooy góor gi nga xam ne dina aju yéen a ngi. التي ينادي بالمنام أنت ما لا تكلم كل شيء جد منه خلقه ولو قبل ذلك جد منه لكن أنت ما خرجنا أنت كل شيء لكن لو قبل ذلك خلقه جد منه لكن لو قبل جد منه لا لو رتارا لو خرجنا كوتا بدأ بالتعملين لك دورنا خلق الإنسان جد منه من كل جد منه وجعل صوبه نبله من ذكر آدم من سلالة تفكر مما يمكن أن يكون lu lu yàq lu néew doole la. mun mm. nga xam ne néew moomu la. maka waa toog mu yéemale ko moom nit moom yéeme bind ak nit. wala suñ ba ba daa xaw xale kaana min tiinin. ba nga defee lim ne mu commencé ne min tiinin. min tiinin. loolu si maka waaw. nan mm-hmm. ko yeneen dama ko waa fab bënit boobu la ñu yemale ko wala mm-hmm. nga xam wan ci suñu koogale mm-hmm. ñu rooni ci ci bënit boobu la ñu rooni ci room ba ba ñaareel mu def la comme ñaar leen yéen ñëpp. Mm-hmm. ak ma dégg. Mm-hmm. wala saara gi itam ma defal leen ko. Mm-hmm. wala nga def ay xol itam ma defal leen ko. waaye nag xam ne ñu néew néew la. maa ngi si woon li nga xam ne moom ngeen sant yàlla. waxaala wax na ñoom ba ñuy wéddi tegtal ne Isa tolal na ndax bu ñu réeree ba xam ne li gën a ci ñun ci ñun ci ci suuf te kenn xam ne ci suñ bàmmal ci la àll ci coo ay naa naka ñun na ciy xaw kan dañuy ay naa ndax ñu na ciy xaw kan dañuy delloo delloo ci bind gën bi moo xam ne bii liggéey la nekk booba dañuy wéddi tegtal bal dina nekk foofu ñorom bàyyi ko doon way wéddi dañu rek dina fay rek dañu dañu dañu seen borom mais yàlla dañuy wéddi rek ñoom ñu mën a def seen bàmm yi la ñuy wéddi wala yetoo yetoo faatu dana faatu leen malakul moo te malaakaam dee mu fi malaaka ñi nga xam ne ñëpp la dañ koo ko tëdd gëm ci yéen ñu ne malaakaam dee ni mooy ki nga xam ne kii ni bu dee jote ci yéen moom moo leen ay rey baat loolu moom da yënd moo xam ne dañu dañ ko koo wëkkal mu ma ta jom ko da ngeen dellu ilaa rabbikum jëm ci seen borom wala tala e ɓolɗo ɗon usmane haɓe annabi mono woy jangin maani ko wasin woy jatta seeni bopp lañ ene rabine fa seen borom boo xam ne woy jangi dajenañ dajenañ fakkalam yàlla ba jatta seen bopp yi ngir perta nga dégg ñu ngi naan rabbana yàlla suñu borom asoon naa gis nañu wasa mi naa dégg nañu asoon naa gis nañu mi nga xam ne moom la ñun yëddi wasa mi naa dégg nañ mi nga xam ne ñun moom dàqoon yëddi woon nañ ko léegi nag lépp loo xam xam ne ñu ngi doon ci àdduna mm. waaye loolu léegi mm. mm. bi ñu léegi dégg nañ ko parce que naa kon na yow yàlla ma ñu delloo àllaaxira naa amoon dama ñu jox saali xande yu baax dinaa nekk ñun léegi moo xam ne ne koy wóolu lañ ñi nga xam ne moom la ñu daal yóbbu foofu ci àdduna nee na sax bu ko loolu liggéey kon na gis nit moo xam ne léegi mu rëy rëy rëy la waaye waral te naa li ñu faagoon. ñun mm. yàlla laajte naa ñu jokkoo na suñu bakkan bu ne. mu daal ci njubam. nga continué neex nañu. am bakkan yëpp dañ leen a forcé. am ñu ko forcé malaaka yi. bu ko defee ñun ñëpp ñu ngi nekk ci njub. waaye loolu tooguñu. li ñu ci li ñu toog moo di ne. bakkan bu ne. dañ koy wan ne ko njubal ñu. day bakkan bu ne dañ ko may xel. Mm. may mm. ko xalaat. xamal ko itam liy njub. ak liy njubali. su ko su ko defee njub. su ko defee bokk ci tamit àjjana la. bu fekkee ñu ne bokk fàttali jigéen ñi. mu boole ko ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy fay jëlee kuréel safara ga العاملون بحق على القول ومن الجنود منذ الله لا نبنا قبل جعلنا وجعلنا من الجنة بكل الجنود والناس أجمل أجمل بولدين وأنا كما قصروني أنا أفيت الجهنم أنا كفيت الجنين أنا كفيت الجنين ورفع إليك الكل من وجهك من لقى ولكم وقت البالي بقيت كل أجنة سوف تكون بعد بولدين يبقى لنا نتكلم في مرة doo mm. mm. mm. ko mos leen dugal. boo xam ne nag xam ne tàbbi safara ñoom lañ li may wax. dafa doo ko mos leen dugal. maa ngi taw si la nga xam ne nit ñi fàtte ngeen ko. dafaa yàlla bu mu dajee seen dëgg yi ànd ak yooyu. ñu naan nag ñun nit ñi naan ko fàtte nañu leen. xanaa yéen a jaa yéen a fàtte fàtte woon ngeen kii bi boobu. ñu ngi dem nag ñu fàtte leen. waaw boo xoo moom dana xaaral xol leen nga leen benn. waaye dina am dana xaaral comme dañu nekkoon ngeen daawu laa daal di leen. dafay dem mooy yàlla ak wér gi ak kéefar. damaa yore na naka dana gan. daa yaatu naa ci ay xaar yi. àll si liggéey yi nga xam ne dinaa fi kéefar boo xam ne waa waa ren ne rek. daa di aay yi. xar loolu ñu rab. ci gën a dawoo ci jóor. parce que boo ñu sàbbal daan dëgg dégg ci sant seen borom. waroon ci ñoom laay sa kii loolu di ñu réy nee na alxuraan. Mm. ñi nga xam ne ñoo koy gëm dëgg dëgg dëgg. Mm. mooy ñi nga xam ne booy lay waxaat ci mm. alxuraan. ñu dégg ñu ñu góor. te toogalul yàlla. ñu dégg ñu tàmbal. mu sant yàlla. te bu looy xamal ci loo xam ne dafa laaj ko mu itam. loolu ñun dañ ci réew mi. loolu yi wax loo xam ne dafa laaj ko li gën itam. loolu dañ ko dañ ko toog ci kaas yi. ñu gars ñoo xam ne. dafa jaay ma dana sori. ba léegi ca tegu. dinoo gëm ñu tegu ba léegi. ani ma baa jëlee wala tudd waaye. ñu gars yoo xam ne yéen seen ak gannaawam. Mhm. dafay suuf lool seen ak seen lal. Mhm. seen gannaaw dafay suuf seen lal. Mhm. ndaxte les jamono yi nga xam ne ci la lal di neexee. jamono yooyu dañoo dañoo suuf lal. lenn ñu nga taxaw di bindee. wala ñu nga toog di tiitar. wala nga xam ne ñu nga toog di xalaat ci yàlla. te damaa ne ñu naan ñaan. ak yéen seen borom. xaw ma ngir wëral dugalam. ak wëral ak seen kii mànneel. da ngeen ko xool ñu ngi digle. mooy dina xam ne soxna ko wax ko lan la ñu leen. waaye yooyu day nga xam ne ñu seen ragal yàlla xam ne ci leen seen gannaaw dafay sukkandiku ak seen lay balaa tax la woon ba xam na suñ bakkan wala nga xam ne foofu bi nëbbalees na nëbbees na ko lawal ñaar la ñu ak ñu ko doon am yéen ci seen dëgg bët moom liggéey bakkan man ba xam mukk da nga xam ne moom la leen yàlla dencal ci xol bu sedd defal la leen ko nag sa juróom koy di may soo bi nga xam ne daala nekkoon ne yàlla daan ko nekk fii ci àddina loolu la leen ko fayee foofu la ci àllaaxira ma ngi laajte. Hmm. awa man daa ko hmm. xam ne na moominan di aji gëm. te man mel ne ko xam ne kaa nekk na faasiqan di aji kàccoor te aji weddi yàlla. Hmm. ndax koo xam ne kii dafa gëm yàlla. di jëfandikoo li gëm yàlla laaj. ndax mel na ne koo xam ne dafa nekk ab kàccoor. di jëfandikoo la kàccoor laa yem deet. laa yastawiina ñoom ñaar duñu yem mukk. waaw danaa la ñu yem nag. Mm-hmm. war na xaaral kenn ku ne na nga déglu. danaa mm-hmm. la waxal tam li nga xam ne kii nii ci lay tàbbi. danaa mm-hmm. yemoon ñu. amal la ñuy daal daañu nga xam ne amal na comme ni muy. waa ñu loolu suñu ci asaliyaat bi ñu baax. loolu ñaan na dina mun a waa. àjjanaay tàpp. mu doon mu def xam. da leen ko fa dencal. nga xam ne liñ teel a dem duñ ko fa fekk. maa ngi toog li nga xam ne daan nekkoon na yàmb loolu daan ko dem. waaw man la tey laaj yi nga xam ne kon waxoon ne ñoom Fatou nañ nekk ay kàccoor. Hmm. ñooñu ba ma waaw seen tàppuwaay. Hmm. ak naara mooy safara. Hmm. daal di leen fa dugal. dañ ko bëgg a génn waaye doo suñu mën a teg génn. kon la maa laaj ak benn bu ñu namee. ak yàlla jiw ñu génn ñu naa ci safara soosu le. waaye doo ñu delloo leen ci naa ci safara sa. waxee la waxee loolu ñu naan leen. looloo xaw ma mën leen a saabal xul de mbugalam benn. hal mm. naa ba naari mbugalam safara mm. boo ko xamoon ne hal naa ba naari mbugalam safara la fii safara si nga xam ne mm. pour lu nekkoon ngeen du ko si war a daal di liggéey moom waaye la see xam naa daañu leen mën a jëm yu bëri yi ñu mm-hmm. ne mm-hmm. nag daal bu gën ni ala adna mi daaji jëriñ ji ji la aji jëriñ yu bëri yi nga xam ne ñoo bokkutoon ak yeneen bi sallallahu alayhi jamono ñoom ñu doon nañ bëggoon mu jëriñ noomale adda mm-hmm. ñi rayoon nañ leen ci Badar ñi ñu ray leen ci mu nañ ni ñi ñu ray leen ci xare ak yi ñu woon defar yi nga xam ne yi ñoo ko fekk ñi fekk jamono ji itam ñoom itam ba tey jamono ji ñu ngi jàng baax ñu ngi jànkuwante xeetu mbugal yoo xam ne yéen nii. Hmm. bokk na ñu mbugal yi ci gën a bëri. am xalaat yu doy. te te du tax sa xel dal. Hmm. am kàttan lu doy. te hmm. du tax sa xel dal. loolu mbugal la moo xam ne yéen a ngi ci ñoom. balaa xam naa ne njëkk mbugal. ala ki bële mën a ji màgg. loolu nag mos a laa doon. waaye mbugal mu màgg moom moom mu ngi yomb ak xeyam. naa loolu màgg ñoom. gerte gi mën nañu dellu. ومن أراد أنه مؤمن الفوز ومن تفهم تلفات لأنه لا يكون به كمان برمه ثم أنقر الطف مدمويا ناكي كمانيا إلا أنك يوم منتقم ولوي بغنى جنوب جدمية توي جانجي كاتنيوم لأنه فاتني يالا ñu de ko du mooy ngir yàlla. Mm-hmm. wala xar aateenaa dikkee nañ Moussa. Mm-hmm. alkitaaba téere bi muy tawreet. Mm-hmm. wala takun bu nekk ci mbir di dig sukk. ñu ne saa yi ñu ci dajeeg Moussa. Moussa bi nga xam ne daje woon nga moom ci guddi la ñaan nga. nee na bu ci sikk kookale Moussa dëgg la da nga daje toon ak moom ci guddi la ñaan a nee na bu a sikk mu ko kookale Moussa wala mm. wala xanaa atay naa jox nañu Moussa Moussa mm. alkitaaba téere mm. joxoon nañ ko téere balaa tekoon yow it bu nekk di sikk bu nekk fii mbir yi ci sikk ñu la kaa yi ci dajeeg téere gannaaw Moussa joxoon nañ ko téere yow itam bu ñu la joxee téere ate Moussa yonente lool te yow itam yonente nga dañ ko joxee téere mën nañ laa jox yow itam téere wajalnaa Muusaa defoon nañu ko. hudan muy njub. mu daal di jubal. Mm. li bani Israayiila ci bani Israayiila. Mm. wajalnaa defoon nañu ñun ci ñoom. Mm. ay matan ay kilifa. yoo xam ne yéen a doon dañuy jubal daaw la laaj ci ñun de. damaa tëmbaroo ba ñu muñee. defoon nañ ci ñoom itam ay kilifa yoo xam ne yéen ñi. dañ daan jubal nañu ci ci ñu digal. waaye leneen ko may nag. moo dina dañu toqoo woon ba kaana nekkoon na yoo xam ne du wóolu gaayaat naa ci suñu kéemaan yi. dina la bëgg naka sa borom moom. yam si dana tàqale day noonu seen diggante yemal xiyaamati bis penc fii maa ci sama fi la fii maa ci la nga xam ne daala nekkoon na ñaxtale foro de wuute fii ci moom awalam yaa ne xanaa bindul. Hmm. dawam ñaa leen ne. Hmm. xam lu bëri alal naa alal nañ ko mun xam leen ci seen njëkk. Hmm. xanaa dañoo gisul ne. am na nit ñu bëri ñu leen ci njëkk. ñoo xam ne ñu ne ñoom xalagoon nañu leen. ñu ne ko war ci maas yi. yam solo ñoom ñu ngi dox. di masaaki ne ci seen dëkkuwaay yi. ci seen biir gente yi ci ñeneen wëndeelu. te gente yooyu la am na ñu fi jiitoon. te ñooñu dañoo xalagu. yéen a yéen a ñu cee doxate tey. ñu ne la sant ngeen di bañ. waaye caara fu ngeen ay mujj. من الرسالة كاجي لك لك جوم لا يا لا يكيوان نفهم أفلا أفلا يسمعون كما يوم بيجي waroon nañu yéemu de hmm. ndax gëm nañ loo xam ne li ne mën na yéemu hmm. awala ñu raw hmm. xanaa gisuñu anaa naka ñun na sookona nañu mànga alma al ndox lal arda jëm ci suuf al juru si suuf soo xam ne si ni dafa kekkee suuf soo xam ne si ni dafa kekkee benn gàncax nekk ga mën di fa ndox ba ndox ma ñëwee rek ba ndox ma ji ñu génne bii ci ndox ma nga an bay akulu moo xam ne dana lekk mi ni ci mu anoon noonu seen i jur waan fa soom ak seen bopp ñu di ci lekk seen digg di ci lekk afalaa yëpp noonu xanaa dañu doon ne noonu lañ mën a tawee ndox su ko defee ñoom ñi tam ñu génn ci biti ayaa xool ne wax ne man de xanaa lu kañ la bi ba tey xaaral faddu kañ la gile xatte. ba tey xaaral faddu kañ la gile xatte. xatte bi nga xam ne moo ñuy xatte suñu diggante ñoom ñeneen tamit. Mm-hmm. xatte mm-hmm. boobu la kañ mm-hmm. la. loolu nag boo gisee faddu ci alxuraan. su fekkee xatte lay gëri. ñun kon doom dem nekk ñen saala xëy na da koy dëggal. kon la yéen. yaa woon fat yi bi sa xatte ba. ba nga xam ne ci la ñuy xatte suñu diggante ak yéen. nga wàccee mbugal muy dal ci yéen. ma wét nañ. yéen maanaam moom seen gëm bu ci gëm ci jamono jooju la donc mhm. ñuy door a gëm ci jamono jooju la leneen du leen jëriñ wala am du caagee ñoom mhm. yam xooloo na ñu ne ñu ne leen muñal itam mhm. li ñuy tuubee wala li ñuy ngàntloo léegi faare na ga dumoo yàlla ci ñoom wante te na nga muñandeku wàcce gi ñuy wàcce ci ñoom mbugal inna moom nag ñoom mun di loolu ñu muñal lañ ñu mënta si woon a woy mu ñu nekku nañ mhm. mu ne mu ñu nekku ba bu set mhm. dafay tey na mbugal mu dal ci yow mhm. waaye yow na leen muñal bu ko dana dana dal ci ñoom suuratul ansaar moom la bokk na ci saar yi nga ne saaru ma nit la wàcc léegi Quraan mu ngi wàcc ci Madinatul Munawwara daana waxoon ne li nga xam ne lii nii moom lay jàngale mooy li nga xam ne moom la saari Madina yi daan jàngale mm. mooy xatte mm. waaye nag dafay lay atte boo xam ne bii nii mm. moom dafay ñëw ci ci dafay atte boo xam ne bii nii ci biir xeetu umatu te xëyatu yonent bi mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaye muy àtte yoo xam ne yéen nii mhm. daal di ko ci biir xeer boo xam ne bii dafa yàggoon ci ñoom dafa métti métti boo xam ne bii nii su fekkente a koy dajji ci biir mu xeer dafay dal ci kaw yonent bi nga su ko ci dajjitee mu jeex su ko defee mu doon koy tasaare ci biir xeetu mu doon tasaare nag mu baale boobu ci biir xeetu yonent bi jamono bi a xamee ne bii nii islam muy ñëw. Mhm. boo daa fekk nit ñi ñu naan kii de gor la. Mhm. kii de mbayal la. Mhm. kii de jaam la. xam nga da ngay jamono yooyu fekk nit ñi yore ñetti kuréel. kuréel boo xam ne bii nii gor la ñuy nekk gor boo xam ne bii nii bu la. ak kuréel boo xam ne bii nii la ñuy nekk. yoo xam ne yéen dañ leen ak kuréel boo xam ne bii dañu naan ay jaam lañu. Mhm. su ko defee léegi bi ñëpp kuréel yooyu mhm. dañu naan lii mhm. denc lii. lii denc lii lii denc lii. loolu la doon loo xam ne nii islam dañ ko a daj te mu jeex tàkk. ba ñetti kuréel yëpp ñu ngi nekk benn kuréel. waaw moo ne dem ci biir arabe boo xam ne tey nii. Mhm. dafa meloon ni yoon nag pour daj ci aqida boobu le mhm. toqali toqali boobu le mhm. waaye muy yoon woo xam ne nii mënu ko daj mënu koy dindi yoon woo ne itam islam bu koy dindi te moom ba dañu ko a dindi dañ ko ko tàmbalee ci biir këru këri këru këri bi muy yonent bi moo ne ne benn waaye boo xam ne lii nii dafay toog bañ kanam rek mu ne lii neex na ma ñu mujj naan doomu dëw la waaye benn waay boo xam ne bii dafay toog ci kanam. Mhm. mu ne lii neex na mu ñu ngi euh, sa baay la. bu mhm. ko defee nii ci saasa. lii mhm. ne kii dafa duggoon ci fastal. ba mu ci dugg ci biir te am na ngoo wala boo ci duggee tey. bañ nangul la ko itam. boo liggéey ñi la ko nangul. suñu dee. ñi koy fekkee noonu suñu la nangul. su boobaa nag mu dellu ci ak ko boo xam ne nii. fekkente ne ànd nga neexoon na démb itam. te dafay mujj naqari. yaa ngi ko def na nga xam ne da ngaa amoon jaam mm-hmm. boo amoon jaam gërëm ko mm-hmm. mu ngi léegi suma doom la ba doom moo ko mm-hmm. bu boo liggéey mu ngi taplante ak doom ci ci donoon yonent bi rek amoon na ko ci biir këram koo xam ne yéen ñu ko daan wax Seydou Muhammad te mu fekk mooy Seydou Arisata li ko def moo ne ne eh, jaam la woon ci biir kër Xadija gërëm nañ ko moomal nañ ko yonente bi hmm. yonente bi bokkam yi nag ñëw nañ benn bis di ko jël si hmm. mu ne leen kër yonente bi moo ko gënal mu ñu ci kër baayam hmm. yonente bi itam fekk boobu alxuraan wax ko ci dara mu kontaane loolu mu ne nag kon moom itam fayal na ko ne léegi doomu na ko bu ñu mujj daan Seydina Muhammad kër bu ne rek boo demee daañu fekk koo xam ne jëli ñu ko tuddee doom te fekk du ko doom kër mhm. bu ne rek boo demee fekk ci koo xam ne ñu ngi koy doom te fekk du doom mhm. du ko doom mhm. loolu mu nekk ànd xam ne ne loo xam ne nii islam moomu tam daf ko bëgg a dajji mooy saa yu ñëw di dajati ñaari yëf yoo xam ne yéen i dajati leen jëfe-jëfe la kon na ci biir kër yéen dañ koy tàmbale daañu daje di ngay nit ñi amatu ñetti kuréel benn kuréel képp moo fi nekk mhm. benn kuréel bi nag daañu fi nekk ñu ñëpp dañuy jëlante mhm. amatu ñetti kuréel bi ñu naan kii góor la kii mbaa yàlla la kii jaam la amatu mhm. léegi kuréel yi ñëpp ñu naan kuréel ñëpp nag naan ñëpp ñëpp ayam ñëpp mën nañuy jëlante mm-hmm. mm-hmm. loolu dañ ko bëgg a daa jëfee mm-hmm. ci biir kër yonente bi lañ koy dundee ñu ne a fort ñu Zeynabu ñu jël ko may ko Seydou Naari sa nga xam ne mbayaara la ci biir kër gi dañu koy daal di dégg ne Seydou mi ñu ngi wax Seydou Mouhamad. su mhm. fekk moom dëkk dëkk ci mhm. mhm. nañ. mu xoolee ni waa xolay sin xoole. d' accord nañ mu xoolee ni waa kër yeneen dëkk ñu xoolee. waaye nag loolu du tax mun na yore askanu démb te teemam ñoom ci xoraay. loolu nag bu ñu ko defee rek. dañoo ñëw ba ci yeneen dëkk sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñu ngi yar. Seydou ibn Ali Sabra ba nangul mu nekk doomam mhm. ñu ne ñu ne ko nag maakaana Muhammad aba ahad yi ngeen di jàlliku léegi doon ñu waxati mu ko Seydou ibn Muhammad léegi mhm. dañuy wax Seydou ibn Ali Sabra bu ko defee nag ci biir saar bi nag ci la ñuy xamle mhm. lan mooy lan mooy ci la ñuy dàqee askanoo. Mm-hmm. askanoo nit. Mm-hmm. ba ne léegi dana ma doon comme ni ma su ma doon ñu doonee. Mm-hmm. biir saa bi itam ci la dàqee ne. pour ki nga xam ne kii ne mu ngi dëkkul. ci askanu sàngam. gannaaw askan wala julli lañu. na na mën a sëyee ci biir askan wala noonu mën a sëyee itam. ci biir ci biir askan wala yi ñaari yëpp yooyu nag mooy li nga moo gën a xiital ci di biir saar mhm. nag dañ ci rek léegi tam jiir ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte mhm. yonente bi soxna yi dañoo am benn jamono ñu geesu àddina mhm. gis yonente bi këram ñu muy eh, doyawaar ba tax nañu des saat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg mu yaatalal leen àddinaam Eh, yonent bi nag xamal leen ne leen mm-hmm. saar yi mm-hmm. xamal leen na ne leen nag mm-hmm. benn da ngeen a nekk soxna si yonent bi mën a muñal àdduna wala ngeen tànn àdduna bàyyi si yonent bi loolu tamit saar lañ koy jàngee yaa yaa kat yoon yow bi leen yonente mm-hmm. itane na nga ragal allah ak yàlla mm-hmm. wala naa tuddee ba topp ak abri ni yéefari wal munaafiqiin ak naafiqi mm-hmm. ina laa naka yàlla kaa nekk na alimun daaji xam li nga alim ak jëma nekk na itam daaji ñëw wattale na nga topp mbaa la nga ram yoo xaadee na ko wani léegi dem ci yow mer la bi ko mu tukkee ci sa borom mu yow xuraat ina laa naka yàlla kaa nekk na xabirum daaji dañuy gumba ma ci la nga xam ne kaa nekk na xabirum eh, doon laaj dañ ci tudd. moo di la nga xam ne ñoom ñoom ñu ngi koy def. Mm-hmm. wa tawakkal na nga wakkeelu ala laa ci yàlla wakkamaa doy na billaa ci yàlla wakkeelu ndaaje wakkeelu wata ay ñi saa dama nekk saa loo xam ne yéen mu diinu dimb ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di diin bi mu di ci yonente bi li ko sabab mooy diin bi nga xam ne diine mënu di ci xeet yi ndaxte aw xeet daal def ko rek ci wolof aw xeet daal la leen gën a métti moo ne seen xanaa sàngam bàyyi leen ci ngeen ko defati soo ko bëgg a wax aw xeet dana métti lool la nga la gën a gaaw ne ci génne leen ci mooy kilifa bu gën a rëy ci biir xeet na bàyyi aadama booba nag mm-hmm. boo xamee ne bàyyi na ko rek mm-hmm. xel ba léegi bu ma bëggoon ku ci bëgg a bàyyi nag ci ñu ngi bàyyi mm-hmm. moo tax nag bi nga xamee ne bi ne saar bi nag dafa ñëw pour bëgg a daaneel an xaat aada yoo xam ne ñu ne xewoon na ci réewu arab yi te biir xew-xew boobu xewaral na ci biir kër yonente bi ñi nga saar yi dénkaane yi muy dénkaane gaa faat bul topp yéefar yi bul topp naafiq yi yaa bul na nga topp li nga xam ne moom lañ la waxoon na nga wëkkirlu itam ci yàlla wëkkirlu ci yàlla doy na lu ne mu ne maa ngi xaaral defaral allah yàlla li rajuli ñaar benn waaye min xalbayni ñaari xol. bii mm-hmm. jaw ji ci biiram. Mm-hmm. nee na nit nit amul ñaari xol ci biiram. Mm-hmm. gannaaw na nit ki amul ñaari xol ci biiram. biiram. wala nit ki biir dënnam. ñaari kër nekk bi. kër goo xam ne gii nii iman mën na koy dëkk. ak kër goo xam ne gii nii na eh, kufr mën na koy dëkk. kon nag gannaaw nit ki amul ñaari xol yoo xam ne yii nii kër gi. Eh, ngir iman dëkk ak koo xam ne gii nii naaj ko mujjee dëkk. kon nag kooku ma ciy dëgg. nekk. Mhm. Mhm. wala ku bëgg a nekk ci diggante bi yow yaay yaay yaay naa topp. su kooku ne nag mën a topp. Mhm. wala boobu daf ne nit ki lee mënta am a xol. gannaaw a nit ki mënta am ñaari xol. wala nit ki itam mënta am ñaari baay. baay joo xam ne ji ne mooy jur. ak baay joo xam ne ji ne da nga koy baayoo. naan nga bàyyi sa kër baay jërëjëf. nga baay ji ne moom ci ngay doon di biir ci ngay wa maa jana la yàlla deful mm-hmm. aswaajakum seen soxna yi mm-hmm. allah di yéen xam ne saaroo da ngeen siyaare mm-hmm. da ngeen siyaar an munul na ci ñoom ummahaatikum di yaay yéen siyaar tam dafa bokk ci aada yi nga xam ne ko daan de ni dafay xuloo jabaram wala maam bu ko naqat ci jabaram ko ak jigéenam mhm. loolu itam mhm. borom bi tabaraka wa taala nee na du tax jigéen ñi mu nekk seen yaay mhm. du tax itam mu nekk seen i jigéen wa maa jaala yàlla deful arniyaakum doom yi ngeen ay askanoo mm-hmm. abnaakum deful leen ñi seeni doomi tam mm-hmm. doomu jàmb joo xam ne ñi daf laa neex rek la mm-hmm. di la wax bàyyi ba ñu ne léegi ci wàkk gi la bokk nee na yàlla deful ko abnaakum muy seeni mu nekk sa doon dëgg-dëgg dana nekk sa doom ci anamu tegg yi waaye du nekk sa doom ba boo liggéey mu la doon boo liggéey ñu naan jabar joo jëloon jabar jooju xaraam na moom wala yooyu tam jabar joo jël jabar jooju xaraam na moom wala koo jël ñu ne kooku itam maam la ci moom yaay la ci moom. Mm-hmm. déedéet kooku doom doomu yi ngeen yeewal nii. Mm-hmm. yooyu ci làmm lañ la yem rek waaye amul. Mm-hmm. wala wax na saalakum loolu. xaw la kum seen wala rek daa faalekum seen gémmiñ. bàyyi diw sàngam bàyyi diw sàngam. nee na loolu wax gémmiñ la rek. waaye du loo xam ne dafa nekk ci xol yi. bu ñu naan koo ci ne bàyyi diw sàngam rek. ba mu nangu ne bàyyi diw sàngam la. bu ëllëgee bu tàggu jabar. jabar jooju la dootu ko mën a tey takk. wala bu ëllëgee bu tuddee doom. doom jooju la dootu ko mën a tey jël. wala bu ëllëgee yow ba tàggu jawal mhm. jawal jooju def ko mënta jëm ngir bàyyam mhm. ngir ngir bàyyam la mhm. déedéet nee na loolu waxu làmmiñ la rek bay di sàngam yaay di sàngam loolu ci làmmiñ la nekk rek waaye nekk ci loo xam ne li ñuy li ñuy li ñuy fondement àtte la nee na lii la lii la yàlla wax nag yéen nag li ngeen wax mooy ne bay di sàngam dana tax askan bi mucc mooy li ngeen waxantu. Mhm. moo ne bàyyi diw sangam dana tax askan bi doy ci. Mhm. doom diw sangam dana tax askan bi doy ci. Mhm. yàlla nag li mu wax moo ne loolu du tax askan bi doy ci. la ci nekk seen diggante rek. ñun yàlla yéen wax ngeen. yàlla wax na. li ngeen wax na bokkul. wala yàlla na yokkoo danoo ak sa dëkk. kon nag yéen lan ngeen ay wax. boo yàlla yaadi dana jubal asabila yoon hmm. te yéen da ngeen ay da ngeen ay da ngeen ay gërëmal nit hmm. léegi képp koo xam ne ni jàppoon na benn surga hmm. gërëm ko ba tax mu naan suma doom la képp koo xam ne amoon na benn bàyyal la gërëm ko ba tax mu naan suma doom la ñooñu ñëpp duñ ñu fi tey bu tumawoon na ngeen leen waxee daa bàyyi ñu ci seen bàyyi kenn ku ne na ngeen ko wax diw doon diw waaye bu leen wax diw diw diw doon diw su fekk diw moom da day yaatu yem rek wala daf ko yar rek wala daf ko gërëm rek boobu kenn ku ne ngeen askane ko bàyyam dellu ca santam wa. Mm-hmm. ak ko moo gën a màndu. Mm-hmm. nee na laay fa yàlla. Mm-hmm. loolu moo gën a màndu foofu fa yàlla. léegi nag daanaka bu ngeen xamoon abaawam seen baay yi. Mm. bu fekkee ne xamu leen seen baay. Mm. wala nga xam ne xamu leen li ñu sant ak yooyu. day mm. waxaat na comme kon ngeen xam ne seen i bokk lañ ci diine ci diine. kon su ko defee ngeen xam ne seen i bokk diine lañ. waaye du ñu doon ci kër gi. bu ñu naan kër gi duñ ci jëlee duñ ci jëlee jabar ndax doom la fi. wala ñu naan kër gi duñ fase jabar. jabar jooju duñ sëyati ci kër gi ndax doom la fi. wala ñu naan kër gi duñ fase jabar. ñoom dootuñu takkati jabar jooju ngir doom la fi. déedéet loolu jàmm tey mm-hmm. day wax ana lu benn bokk nañ ñu diine ci diine mm-hmm. bu mu a wala ñu seen way méngoo mm-hmm. wala ñu seen xarit yoo xam ne yéen ay doom ñu seen doom bàyyi ko mm-hmm. wala naa leen ko waral leen rek ginnaaw bàkkaar imagine la nga xam ne axtatum ah jiw ngeen jiw moom gannaaw bu ñu waxee ne kenn du waxati nag diw sàngam du doomi diw sàngam léegi xaaye nañ ko gannaaw ba nag ñeen bi ngeen ko miinoon bu indi lay juumte juumte la nee na borom bi wa taala nee na jéggale ko waaye dañ dafa nekk di leen yàlla jàppee mm. maa moom mooy loo xam ne daa mën a tay rek ku doon boppam seeni xol daa mm. nga jël allah yàlla mm. moo ko waral di jéggale akoon nekk na itam raximan di yërëm akoon waaye dafa am lu fi nekk da la ngeen ko dégg bu baax dafa am lu muy lu muy lu muy tëralam dafa am lu ko lu ko tax de lu ko tax de defal muqaddima bi ànd bi yonent Allah moo gën a bi mooy ni ci jullit yi yëpp ak jigéen ci seen bopp nit bu ne boo taxawee soxla sa bopp yonent bi soxla la mm-hmm. bu sa kër yonent bi moo gën a xeex yow jigéen mm-hmm. bu soxla bopp yonent bi soxla ko mm-hmm. nee na bu sa kër yonent bi moo gën a xeex yi ñu boobu la waxuma kay nga soxla sa bopp sa baay soxla la wala nga soxla sa bopp sa doom soxla la kooku taxoon ñuy wax di nga soxlaa sa bopp euh, euh, waxuñ na sa bàyyi soxla la yonent bi soxla la kooku mm. taxul ñuy wax mm. waxuñ sa jabar soxla la yonent bi soxla la kooku taxul ñuy wax mm. dañu la ne boo soxlaa sa bopp yonent bi soxla la yonent bi mu gën a xëy ci yow fan nag ci nga xamee li nga xalaat ne lii laa bëggee yonent bi xalaat ne lii mooy sunna la yonent bi wax ne mooy sunna loolu moo gën a xëy sa annabi yow yonente awlaa moo gën a yey hmm. ñun moom mi dina ci jullit ñi yëpp di ci seen bopp hmm. Hmm. waa soijo soxna yi nga xam ne yéen ñoo soxna yonente bi ñooñu ummaatoom seen yaay la ñu war a doon ci alamu tegg yi ak naka noonu ñi nga xam ne ni yaayam dafa araam ci moom ci alamu sëy naka noonu soxna yonente yi moom itam dafa araam ci jullit ñi ci alamu sëy woolu la woolu la xaal borom mbokk yi baa borom lenn ci ñoom awlaa ñoo gën a yey bi ban ci lenn ci kitaabillahi ci téere yàlla bi ñun moo ngi nii na ci jullit ba mm-hmm. maa ji leen ak mooy gàddaay yi mm-hmm. jullit boo xam ne lii nii dafa gàddaay jullit mm-hmm. jullit neexee ko mu gis beneen jullit bi moom kooku itam jullit neexee ko ñoom ñu fàttaante euh, ne mm-hmm. léegi day comme que man jullit laa yow jullit nga kon léegi nañ nañ nañ def nañ fasal di kóolóore boo xam ne mm-hmm. su ma deexee nga doon na ma mm-hmm. soo deexee ma doon na kóolóore googu ñu jàppante ko léegi gannaaw kenn ku ne say bokk tuub nañ am nga mbokk moo doonantee léegi nag ñoom mbokk yi ñoom ñeen ñu gën a xëy ñu liggéey nga xam ne ñu ñoom nga jàppante doon kóolóore boo ma ilaa atamaloo xanaa ngeen def ilaa li atum jëm ci seen mooy méngo loolu de moo doon man njëkk taala hmm. nekk na saalika njëkk loolu hmm. de masoora de li ñu bind taa hmm. nekk na saalika eh, bokk yi gën a ñëw xaritu julli bi mm. nekk na ma toogal di dugg di dugg ci kitaab bi ci téere bi muy alquran dana mm. bu njëkk dañu daan def nii mm. jàngoon nañ ko ci lan faa sox dañu daan def nii daan am jullit boo xam ne bii ne dafay gàddaay dem ñëw mag ñëw Medina bu ñëwee yeneen bi boole fa ak beneen bokkam jullitam mu nekk njaati yéen nekk lu ne bu ko defee ñoom ñaar ñu ñu sottante ne bu fekkente ne maara njëkk dee nga doon ma soo ma njëkk dee ma doon la fekk bu ñu seet ak mbokkoo dañoo seet rek imaan nga xam ne bi ñu mooy ak doole hmm. booba nag kenn ku ne hmm. boobu fekk na jullit bëreegul da hmm. nga xam ne léegi nag jullit bëri na ba jullit bu ne am nga mbokk moo xam ne jullit tuñ nga boobu nag lañuy wax ne baax moom ma ah bawul la xam ne baax moom ma ala ah bu ma leen jullit boo xam ne bi nga ko sant woon ak kóndale ak keneen te imaan yi moo leen boole woon léegi nag am nga mbokk moo xam ne imaan boole na leen deret boole leen kon nag kooku dañ la dem doon saa ko loolu rek kaala na kaala nekk na si kaala nekk na saa lekk loolu dafa ko mën a ñu bind si kitaab bi ci téere mm-hmm. waaye njëkk nag mën ngeen koo doxale seen diggante moom mm-hmm. njëkk moom mën ngeen koo doxale seen diggante xarit ji mu yooyu la lii muqaddima la boo xam ne bii dañ ko fay denc mm-hmm. ba fa la naa xasaa saydu bi naa war sa way naaka foofu lañ cee amee ñu soxla na nga baat la ko is taxaw naa ba ñu jàppaa ba ñu jàppee mi ne bii rek ci yonente yi mi saa xawam seen kóolare. nee mm-hmm. na jàppoon naa ci yonente yi kóolare. Mm-hmm. ba ngeen ko yow yonente bi. Mm-hmm. jàpp naa yow kóolare. ba min nooyee ak noo. ba Ibrahima ak Ibrahima. ba Moussa ak ngeen ak Moussa. maa ngi tam ni Mariam ak ngeen tam ni Mariam. ñi ñëpp jàppante woon naa ñoom kóolare. waaw waaw xam naa jàpp nañu ne ci ñoom. ñii saa xam kóolare. Ah, xale seen kóolare boo xam ne gii nii ku tànn la. yaa kóolóol googale nag moo doon lu boo ji leen jox. Mm. ak saa yi nga xam ne jii moom lañ ko war a saa yi tudd nit ñi. Mm-hmm. yàlla def na nag loolu la. Mm-hmm. leer na la ngeen laaj saa fekkee ne mooy mm-hmm. dëggal de. ak si fekkee di seen dëggal bi. ndax kóolóol googale. la mu laajoon te moom moom moo di ñu tasaare ko si biir jullit yi. tasaare nañ ko wala tasaare wuñ ko. waaye da yàlla xam na ne taamu ne dañu yàlla yëngal. wax saa bu bëggal andi woon moo xam ne ñu ne mu métti la. يا أيها الذين آمنوا اذكروا أن من يتب نعمة الله وليانا عليكم فيها إذ جاءكم بغرا من جلودك النبي جنود الذي فأرسلنا جنبا ريحا قلوا وجنودا وجنود أنجل لم تروا يوم من جنبه وكان نكنا الله يلا نكنا بصيرا دعي دجس بما جنا قد تنملون ينن كويلا ak kañ naan Abu Ammar Abu Ammar waaye léegi. dañoo ànd ak mbooloo mhm. moo xam ne ñoo ñoo ñoo bokk gàtt ci benn bëtër. ñu dem mhm. nag. mosul daal na ko mel ne daal ko xalaat boobu la. xalaat la moo xam ne benn boo rafet rafet la. te daal moom la yonent bi daal. ñu gën a bëgg mu dimbali ñu. moo ñëwaat moo ñëw ci woon yi. nga daa faral di wax ne yow dañu leen. Mhm. waaye nag dañ leen laaj loo xam ne ni yéen ñu ko gën a xam. Mhm. yéen day borom xam-xam ngeen. Mhm. yéen yéen a yore woon daaw leen. léegi dañ leen laaj ndax suñu diina. mooy diina dëgg wala Muhammad moo nekk ci diina moo nekk ci diina tamit. ñu ne nag ñoom yow di nag xamal wax xoolal su mel leen. yéen ñoo nekk ci dëgg Muhammad moo nekk ci dëgg. loolu ci la aay yéen ñu jàngi woon ci misaay wàccoon. alam dara yéen ñu ne la wala ñu ci daal. wala si ne ba nga xamee dégg nañ kàddu boobu ñu wóor wax leen ñu kontaan lool sawar lool itam ñu daal di sa bi yow dina gis dem ci gàtt gi ñoo xafabaan ak ak gàtt gi ñoo xëy samay daan ñoom itam ñu dellu waxaat leen yow ñu leen daal léegi ñu kuréel lañu wala si ñu kuréel lañu léegi ñaari kuréel lañ yoo xam ne yéen dañoo bëgg sama yeneen bi dañoo bëgg nag kuréel kuréel boo xam ne ñu ngi def ci ñetteel te yéen lañ bëgg ñu doon asamaan moom itam daa koy def. jiital seen kilifa gi ñoo koy moo koy yëngal dund ci suuf. Hmm. Hmm. balaa xam ne ne yëpp préparé nañ pour génn. Hmm. Eh, am gawar boo ne ñu ñu bàyyi ko àndoon. ñoo ñëw ci yonente bi nag. ñu doon bàkkaarloo boobu la nga xam ne. araab yi ak yowat yi. baaxoon nañ ci ne dañuy àndandoo. Mhm. def benn doole. di mhm. ci dal ci yonente bi ak saaba bi. Mhm. yonente bi nag ba mu gisee ne mbooloo moomu. mbooloo la moo xam ne nii ni mu rëy la. saaba yi dañ ñëw doole ñu songante moom. la gis ne daal li nga xam ne dinañ ko war a eh, defee. dinañ ko war a ñëñee. moo di ne dañuy gas. canal mhm. canal yoo xam ne dafay wër dëkk bi mhm. dafa mu nekk canal yu rëy mhm. yoo xam ne yéen fab ko mën a fab ko mën a tënk canal yooyu nekk na mit na genn wàll gi yëpp lañ la diggante yi nga xam ne yi nii mujj mujj coox diggante boobu def na ba gas ko ay canal yoo xam ne yi nii gudd la yoo xam ne nit ko mën a tënk fab ko mën a tënk loolu dina yomb loolu moo tax ñu commencé woon a tegal ay canal da wër na dëkk ba canal yooyu nag moom moo jaaraaw xandax moo tax boobu la ñu daan ko wax xare xandax mu nekkoon xale boo xam ne téere bu métti woon la. Mhm. ndaxte kenn fukki nit ñu ne. Mhm. ñeent fukki kii lañ leen daan jox ñeent fukki xasabo lañ leen daan jox. Mhm. su ko defee ñu gas ko. maanaam loolu daanaka moom du bëri doon ñu bu ne daal lañ leen jox ñaari lañ leen jox mètre yoo xam ne yii dañ koy gas. am nañ juróom benn fan yoo xam ne yii wala juróomi fan yoo xam ne yii. ñooñu dañuy gas. am na sax ñu ñoo ne nañu canal boobu ñu ngi gas ci ñaar ñaar ñaar fan ak ak ñeent. nee na awrum na wax bi nee na man maag Salman ak Husaynata hmm. ak Muhammad ibn Muqtada ak Musni hmm. ak yeneen juróom benn ci wàllu saar hmm. mu ne ñun ñi ñoo bokkoon ñeent fukk ñeent fukk façon yooyu le daf nañoo daf naka baagi ci benn la yoo xam ne nii ni mu gudd la waaye xase ah, bi yow gudd na àggale ko dana ci téere bi ni ko ni ko téere bi nettile dana xaw a métti waaye ba nga xamee ne bi ne waaj nañu mhm. ba nga xam ne dara desul leen lu mooy ñuy ñëw song si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. fi ñuy wax nooy moom lu ma soor mhm. moo ñëw ci yonent bi nag ne ko man day taxatumaa ndaa bokkul sama bopp ma ne ko man nag damaa tudd sama bopp yóbbu si tuum naa waaye léegi xoree suñ ñu nga dajee nee nañ ci yow lañ jëm ñu nga ànd ak xatubaa ñu nga ànd ak yowóot yi ñu ñëpp def nañ benn benn doole bu ko dal ci sa kaw su fekkee ne may nga ma ndigal nag man ci sama politique mun naa fexe ba mbooloo yooyu dañuy tasaaroo waaye kenn du ci agsi ci yow. ñooñu mhm. defe nañ ne ko kon nag may nañ la ci digal. Mhm. ndax xeex moom pexe la rek. Mhm. mu dem nag ci xam ne ci jaay nii ban tey maa ngeen. ñoo ànd. ñoo xaritoo. xam ngeen ni itam lu leen lu ñu mën ko daal man maa ngi ko xamal. seen secret itam daaw ma ko tasaare dara. na ko waaye dem wax nga bu yàgg ban tey. mu ne ah yéen de li ma leen a ne moo dina yóbbu gën a ci mbir nag. rëcc nañu ay soxla tool bi nga xam ne bii soxandoo yéen. dañuy dañuy soxandoo yéen bi sallallahu alayhi wa sallam. ba jaay wax nañ leen ne ko. yow waa Màkka kat bëgg nañ laa xeex bi. ñun la ñuy bëgg a layee waaye ñu xàmmante. léegi nag boo bëggee yow yu ne soo bëggee. mën nañ laa jàppal ca Quraysh ay jàmbaar yoo xam ne yéen a demee ne téye la neexee nga jàpp bu la neexee nga rey mu ne leen nag kon yéen waa Màkka yar boo xamee ne benn yow yoo xam ne dañ leen jëpp rek su boobaa bañ leen xam nañ ne bu ngeen joxe rek dañ ko jébbal yéen mu gën si ne waa li nga yow di ñoom dañ tàggoog ñoom léegi loolu lañ ko sàcc gannaaw bu dëkk ci yow di ne leen yéen nag waa kii waa kii Quraysh waa Quraysh yi mhm. réccu nañ la nga xam ne lii nii moom woon ak ñoom mhm. ba nee nañu daal mhm. xam nañu ne eh, ndeet ngeen ci gannaaw nee nañu daal bu fekkente ne bii gisu daje ba ñëw nga ñoom bi ñu song yonente bi mukk lu dul yéen yéen a njëkk a song ndax yéen yéen a woote su ngeen njëkk a song nag su ngeen nangoo njëkk a song su boobaa dañ nangoo dañ nangoo song waaye bu dul loolu kon bi ñu song yow li ne. Mhm. waaw xoolal si nekk doo ñoom. Mhm. keroog ba ñu tàggoo ñoom rek lañ fay ci kóolóore. Mhm. mu romb leen fa dem sa a ngi bëgg kóolóor ci dara. naa ko xoolal si. ñoom mën nañoo xeex ak Muhammad. ndax ñoom ñoo ñoom moom ñoo bokkoon askan. danaa ko bu fekkee askan ba dara xew na ci ba xeex ba jubóo di am. boobaa mën nañoo xeex ak moom. ñëw ci. waaye mu ne leen yowoot yi itam mën nañoo xeex ak ñoom mhm. ndax ñoom ñoo ñoo bokk dëkk mhm. waaye bokk leen ak moom dëkk mhm. bokk leen ak moom askan léegi boo xam ne dajee am na bu leen song mukk te dugg na xale si dañoo song na ba nga xamee ne bi ne bis ba ñëw na ba ñetti kuréel yëpp ñëw dajee si ci Medina ci Medina mu nekk bis boo xam ne bi ne bu tàng tàng tàng la ndax xam ne li ne lool mhm. ak euh, sedd boo xam ne bii dafa tàng lool mhm. noonu yëpp bàyyi ko ñu dëkk day jor ak jamono yëpp mhm. dëkk bi jamono bu ne ñu nekk ci jàkk rek ndax ñu ngi ragal kanaat bi nga xam ne moom la ñu gas ndax yëppari bu ñëwee dañ ko mën a jóg daan si biir bëriga wala duñ ci mën a daan si ñàkk rek boobu la ci jamono yooyu mu maasale woon na boole ñu dëkk nag ci biir moom ba nga xam ne ñett kuréel yi nag dajee nañ xoree si nag yoon ne ci yëwat yi ne leen nag léegi yéen yéen a woote woon te léegi ñun yàgg nañ bi léegi nag nañ àndandoo. Mhm. song song yonent bi. Mhm. song Muhammad. Mhm. yow di ne leen d'accord na nag ñu song ko. waaye nag ba leen jox ay jàmbaar yoo xam ne ñu ne da ngeen koy tayle. nga du ngeen daw. la dégg ngeen de lan maa ngi de. ñu ne bu dem ñu dem seen yoon. ko defee. xoolee si na ne leen ñun nag ñu itam duñ leen jox yenn jàmbaar mhm. lu mooy rek ngeen nangoo songa door so songa door ngeen nangoo song mhm. ak yéen yéen a woote ñee mhm. itam la di ngeen la gaañoo waxoon de mais la la nooy waxoon ñëw na de xatafaan yëngal gars yi ñu ñu dem yëngal ak xatafaan mhm. ndax xatafaan ñëw leen ko ñu sooma doon yonente bi xatafaan mhm. ne mhm. yéen yéen a yéen a bokk moom deret yéen yéen a bokk moom dëkk bi yéen ñaar yéen ay sooma door bu ngeen sooma door ñu ñu digloo leen ñu leen ne arab yi ne yahóod yi xot nañ yahóod yi ne arab yi xot nañ xatafaan ne arab yi yahóod yi xot war nañ boo ko defee noonu lañ meree ba ci biir jaax-jaaxle boobu la mm. Abu Sufyaan wala ci bëddi mm. ne ku jee ñi bi jobal ñi mën naa ngi ñëw ba tey nii lañ tasaaroo te mm. xamul man daa am na benn góor sa góor ga moom dara waaye moom mu ne mu ne politique pour bi moo fi door a agsi waaye gis ci yàgg na ne ah, amee xale bu yem noonu ne yow politique képp képp moo tasaare mbooloo ma waaye kii bokk ñi loole sax bokk ñi xale boobu nag moom lañ tàmbali woon dee boole woon ne mm-hmm. yaa ayyuha alladina amanu waskuroo da ngeen sant ni amatullahi xewal yàlla aleykum ci yéen da ngeen sant xewal yàlla is jaakum ba dikkalee leen junoo duñ leen waaxal naa ñu yónnee alayhim ci mbir boobu de mhm. yooyu xangalaa ba junoo duñ ak leen mhm. lamtarawaa boo xam ne bi ñu gis leen ko mu nekkoon ay malaaka mais mhm. na ngeen sant yàlla ba nga xamee ne leen bu bëri dikk na leen ñeneen ñi ko bàyyi ko màkk ne waa Xorosin ñene bàyyi ko ci biir dëkk bi muy jëwoo di bëri na déri ñene bàyyi ko ci xotobaan muy jëwoo ci xotobaan yi ñu ñun ñëw dalandoo seen kaw waaxal naa ñun yàlla ñu yónnee alayhim ci ñoom ñu dee am ngelaw mu ne waaye ngelaw laa nii mhm. mu nekk bis bis boo xam ne sedd la nekk bis boo xam ne génn bis la ñu mhm. ngi mhm. seen kante yi daanu mu mujj itam seen euh, euh, seen seen seen yi yëpp la dafay kon ñu doon waral ak lelem malaaka boo xam ne ne lam taram waa gisu leen ko ba kaa nekk naa laaw yàlla ba séeran daay jëf ma ci la nga xam doon yéen a ko def na ngeen sant yàlla te jaawakom ba nga xamee ne lépp boobu dikkal na leen min faw xe moom ci seen kaw ba xamee ne bi leen fii di kaw ci kaw dëkk bi wa minal falaa seen suuf min kum ci yëg ba esaaxat ak ba nga xamee ne jeng na waa mbir ne yomb joon nañ jàq ndaxte war a man ñetti kuréel daanoon doon ci biir dëkk bi dan la ci waa dëkk bi mu jee daan loolu jaaxaloon na leen wa balaxa joote alxuloobu xol yi ñu mhm. jot na ana naa jële ci kuró yi yal na ko daal sa xol mhm. njàqare génnee na ko ba marché ci sa kuró mhm. wata suloon na boobu yéen jullit yi yéen a ngi daan jot ko bi laa ci yàlla asmaa ay su ay ay jot ko yoo xam ne yéen yu wuute la am na ñoo xam ne ñi nii ñi ngay jot ne mbir mi lu mu tiir tiir borom bi tabaraka wa taala dana leen dimbale waaye am nañ ñoo xam ne ñi itam naag woon nañ defoon nañ na xat yi xat yooyu daal ñu ci ji dana yor dana jëriñ lool mu ne woon naa nekk foofa de boobu mhm. tudd yàlla ñu nattoo ak moom noonu jullit yi mhm. nee na keroog de natt ñoom jullit yi mhm. di seet xam seen wóolu yàlla fan na toll ak am njàmbaar fan na toll ba si doo keroog rëng rëng nañ suuf saa na bu tab rëng rëng rëng nañ ko bu tab gis na boo xam ne bii nii keroog xàmme nañ ci lii di ak naafeq yi hmm. mooy na nga fàttaliku hmm. gis nga xoolu béyo almunaa bi xool naafeq yi hmm. wala lii naa ñi nga xam ne fii xuloo bi nekk na ci seen xol yi maradun feebar maradun eh, sikk ba nga xamee ne ñi eh, naafeq yi ak ñi nga xam ne seen xol yi sikk da ciy nekk ngay wax ne maa waadanaa dëxaloon ñu allah allahu yàlla wa rasulu ak yonentam ilaa xoroona dalay nax yene keroog naafeq yi ak ñi nga xam ne sikk dafa nekk ci seen xol yi mujj nañ naan daal daan wax ne daal jullit yi dañ leen dimbale mhm. ba yéefar du leen not mhm. loolu daal na xel la mhm. waaye ñetti kuréel yi yëpp soo ko dëkk bi ñii daal dañuy ñëw mukkati doo jiñ dëkk bi waaye saare na nga fàttali ko ba waaye ba doon ko leen mënum ci naaf tey mm. ne yaa ahla yasuba yéen waa Medina mm. laa maqaama ndeetu sax mm. lakum ñaan leen fag ñu woon na ngeen dellu na fag ñu woon na ngeen dellu ci ci ba waaye saa sinu da diisu bari xon ku leen ci ñoom ay annabi yonente yoo xooloo na ñuy wax ne inna buyoot naa naka suñ kër yi awratun eh, awratun dafa sangeewul awratun sangeewul mm-hmm. amaaye deen moom mm-hmm. Mm-hmm. a rek muy kër boo xam ne kii sañuwuñ ko ñu mm-hmm. ni loolu namuñu mm-hmm. da rek daw rek nee na bis la boo xam ne bi nii na ci ne ci ci kuréelu yonente bi sallallahu alayhi bi ñu taxawoon am na ñoo xam ne ñii ni naafiq la ñoo nekk ci biir ba mu joon nañ naan leen di jëm ngeen dafi taxaw ak yàlla eh, du du ngeen kenn eh, il faut yëfari lor leen il faut kuréel yéene daal ci seen kaw kon nag léegi bu ngeen te booba yonent bi mu ngi leen ay a ndimbalal yàlla. Mm-hmm. waaye teewal naa ko fii gëmatuñ loolu. Mm-hmm. ba ñu naan leen eh, fag ñoo na ngeen dellu. Mm-hmm. daaw leen daaw leen dem jamono yooyu nga xamee ne yonente bi mu ngi taxaw jàkkaarloo noonu yi mhm. ñuy ragal ñuy ñuy xalaat mucc danaa wala mucc da du am mhm. am na ñoo xam ne ñu ay ragal lañ mhm. léeg-léeg dañoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax ne ko dañoo bëggoon a dem ci kër ga te ñëw naata kër ga daal xale yi rek lañ fa bàyyi wala jigéen ñi buñ demee toppatoo seen affaire del del siwaat su ko defee buñ demee rek daw jaaree noonu nee na ii doona boobu na muy ilaa rek daw rek nee daw rek la ñu ne woon te gaa yooyu le yi aw nit la ñoo xam ne wala doxalan bu tàbbee toon mm-hmm. alayhim ci ñoom mi laqataana jëmee dëkk ba mm-hmm. su ma suyiloo topp laajeen leen mm-hmm. al sunnata eh, bokkaale laa taw xaa ko leen ñu dikkee bokkaale boobale ba mat la bësoo duñu sox ñaa ca ci dëkk fay daay suna doy lu néew mhm. nee na ñoom ñooñu la nga xam ne mhm. soo ba nga ba nga taxawee a xeex ak yéefar yi mhm. dañoo ñëw ci yow dara tàggu rek ñu ndigal ñu dem defar seen mbir seen seen solo di deslaat fekk daw rek la ñu bëgg nee ay gaay yoo xam ne ak naa képp képp moo nekk ci seen seen xol yi ay gaay yoo xam ne yéen nii soo xamoon ne da nga da leen doxe woon ci gannaaw dëkk ba gis leen ñoom kenn kese ne leen kaay kéefar tere te mucc tey kaay mm-hmm. leen mu weddi yàlla te mucc tey koxe mm-hmm. itam naa ko xañ ci kii weddi yàlla ba bale koxe mm-hmm. itam ñu def ko bamaata nda waloo bi ñu sox binaa ci dëkk ba idaye si idaye si la dara lu néew boobu daal loo leen loo leen loo leen wax ne daal boo leen waxoon leen weddi leen yàlla te mucc koxe itam naa ko xañ ci kii ko te ñoom de loolu bu ñu ko defee. Hmm. di biir kóolóore dëgg lay doon. Hmm. ndaxte. Hmm. wala xanaa doo dalaan wala xattaanoon nekkoon nañ. ah doo dalaan te woon ne allah yàlla mu xam ne njëkk. lay wala duñu dëgg allah du baara ay gannaaw. ñoom kon ñoo ko waxoon bu njëkk ne. ñoom duñu daw ci xare mukk. waxaana nekk na alhamdulilah dana la bu yàlla ma toolam de lu ñu tudd. ma toolam de lu laaj. kon na leen. lan yan faa kon du jëriñ leen alfiraaro ne da ngeen a daw ragal nee loolu leen mos a diglee waaye san boobale boo xamee ne dee yéen a ngi daw dee wala ngeen ay daw ku leen rey laa tuma tumoona dee bu leen bànneexal li mooy dootu leen dundati ilaa xale leen dara lu néew bu ngeen ko dawee dawee xeex wala ngeen daw ku leen rey itam nee loolu xol waa leen ne leen man saa ana kenn si mooy ko nga mm-hmm. yaa si ma comme dana mosa leen ne laa ci yàlla mm-hmm. in araada bu namee bi comme ci yéen soo am lu ñaaw mm-hmm. aw araada wala mu nama bi comme ci yéen rahmatan yërmande wala yi doon du ngeen xam law li li ñu xam law ñaar leen min tane daa wala si yàlla wala yéen aji méngoo joo xam ne diine mooy na jëriñ wala nasana di jaagaan aji dëngalu joo xam ne diine mooy na jëriñ nga laaj leen su fekkente ne kan moo leen mën a musal ci yàlla mm-hmm. bu fekkente ni yàlla leen nar a halak mm-hmm. wala bu fekkente ni yàlla daf leen bëgg a bëgg xad yaalamu xam na dëgg dëgg mm-hmm. allahu yàlla mm-hmm. al muawiqiina way gàllankoor yi mm-hmm. min kum ci yéen waaw muawiqiina ñu ñu gàllankoor yi min kum ci yéen waaw xaayidiina ak way wax yi ñee waa ni ñaa seen bopp yi eh, seen bopp yi jullit yi naa leen lu ma kaay leen ilay naa jëm ci ñun wala yaatuona te duñu dikkee ak boo sa teew ilaa xale yoon dalay dum réew ne yàlla xam na dëgg ñi nga xam ne dañoo gàllankoor dañu ci teew ak ñi nga xam bu xeex jotee naan leen ñëw leen Mm-hmm. su ko defee ngeen mu ci ngeen mu ci tey mm-hmm. wax na dëgg mm-hmm. ñi nga xam ne ñeen ay naaf yoo xam ne yoo xam ne yéen gàllankoor. Mhm. xam mhm. xam ne yéen dañuy wax seen bopp jullit mhm. lu ma kaay leen ilay naa jëm ci leen ñu làq leen. wala yaatuma di ñu nekk naafeq yoo xam ne duñu xeex. daal néew na duñ ko fekkee. parce que yaakaar gën ñu ne nay dimbale. te saa jaa bu dikkee alxaw ba ragal. boo xamee ne benn ñu xam léegi ñu ngi ragal. gis leen. ñu ñëw de làqu si ci yow mhm. ñoom nangu ñëw de jettee ba nay nañ leen dimbali itam mhm. waaye bu ñu xamee lu ñu ragal rek mhm. ñu ñëw ci yow de làqu si léegi daal di àggu dëkk yow xam nga waaye dama mujj na ñeent wala ñu xool nekk jëm ci yow. te mm. loolu mu ngi yundeel ay moom seen bët. dana mm. seen i waajoo xam ne. ndox mm. saa def na mu wóor àll yi ci moom mu leen mooti ci ne am na li ñuy ragal. ñu ñëw ci yow nag wër la. di la xool. seen bët yi mel ni koo xam ne kii nii dee da koo muur. loolu la ñuy def. émission mhm. bi ba demee alxamu ragal ba. salla kooku ñu sànni leen. Mhm. daal di ci lambeñ. xiddaat ñoo xam ne yéen ñu ñëw la. Mhm. boo xam ne lañ doon ragal yëpp jeex na. ñu commencé nañ de la xas. de la sànni ci lambeñ ñoo xam ne lambeñ yi ñëw lay doon. su waay tam dañ leen di wéy nay. alal xëy ci jiw. te jiw moom nay nañ nay nañ la cay boole. walaay ak ñooñu de. nga xam ne melo woowu la ñu amee. lam yooyu ñu mahamata mm-hmm. sibbina allah yàlla amaala ya seen jëf mm-hmm. ba kaala nekk na saalika loolu mm-hmm. sibbi googu li nga xam ne moom lañ sibbi seen jëf nekk na yéen na daa ji yow wax ñoom naa fekk yooyu leen hmm. ñaam si boo nañu ngay jot ne hmm. allah saabu kuréel yooyu waroon dëkk bi hmm. ba nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te eh, yàlla dàqal na ko noonu yooyu le mu ñëw ñu nekk kontaan naa fekk yi nga xam ne dañoo dawoon làqu ci ne yëg yëguñu ne ñëpp di daw nañ daw nañ ba ba tax na ñoom ba léegi ñaam si boo nañu ngay jot allah saabu kuréel ba léegi ñu mu ñu génn ci seen nii wàllaay waxuma seen nii sax waaye ba ñu làqoon ci nii Mmh. xaw ma ñu ngi fay génn. Mmh. ak ñu ngi defee na eh, eh, kuréel yi dafa ko mën tey. Mmh. te ñoom daal. waaye yaa ngi dugg di ko anan saabu kuréel yi. waxoon ma ne gars ñu ne daw dañoo dee saar. yow doon ñu ngéeju. lawal na moom mooy contre ñoom. baa doon na wuy xàllu lañu. bi la arabe nekk ci arabe ci kaw ba. soo xamee ne kuréel yooyu dikk na. su fekkoon ne kuréel yooyu dañu ñëwaat. di dalaat ci kaw dëkk bi. ñu ngéeju ne yàllante woon bi ñu fekkoon ñu maa ngi woon xàll ba. bu ñu tànn ñu ko fekkee. su ko defee nañu nekk boobu ci àll ba rek yeta mm-hmm. loolu ñuy laaj na an bàyyeekum ci seen xabaar nga xam ne su ko defee ñu naan mm-hmm. ba yonent ak sahabaam yi mm-hmm. ñëpp di dàq nañ leen wala dàquñ leen ma Abubakar moom rey nañ ko ci am Omar moom rey nañ ko ci am su ko defee ñu nekk boobu ci àll ba ñoom duñ fekkee waaye am na xabaar ñu yëg yàlla loolu ñuy dañaan bàyyi kon ci seen xibaar ñoom ne wala kaano bu ñu nekkoon fi comme ci yéen maa xaatu loolu du ñu xeex illaa qalilan da leen du néew bu fekkoonte ne dañoo nekk ci seen biir itam waaye itam bu ñu nangoo xeex war nañu ñàkk a nekk seen biir yi moo gën ci yéen Mhm. Mhm. Mhm. yéen julli nii. yàlla la. ka nga xam ne. daa nekk na yàlla jooju yaakaar allah yàlla. wala allah xara ba daal di mujj. wasakara te mu tudd allah yàlla kasiran kasiran bu loolu mooy noonu la yëpp ñoom ba naafiq yi ñoom ba nga xam ne bii nii gis nañu yónne eh, kuréel yi. Mm-hmm. noonu la ñu leen ragalee woon. Mm-hmm. noonu tam moo ñu doon seen mawqif. Mm-hmm. ñi nga xam ne nag dañoo yore woon imaan boo xam ne bii nii bu set rëcc la. ñooñu wala maara bu gisee ak ñoom ñoom ci liggéey. alaasaabu kuréel yi. ba nga xam ne kuréel yëpp xam nañ daanoon doon ci biir mbir mi. xaaloo dañuy wax ne. ah saa lii maa mooy la nga xam ne. waaw dinaa delloo nañu ko allah yàlla wala solo ak yeneen taam. li nga xam ne dañuy yore am yàlla boo xam ne lenn la su ne lii ci dëkk bi li ñu bëri bëri indi leen jàppale ndax ñoom dañoo xam ne yàlla lam leen doyaloon leen nattu bu natt ba wéyee dana leen dimbale parce que dafa dëggal na allah yàlla wa rasulu ak yeneen taam mama sa doom doon liwu leen jàppale googule illaa imaana ndare gëm gëm gëm wa tasliman ak jébbalu Mm-hmm. yàlla yi nga xam ne lii mooy li nga xam ne moom leen yàlla dëgaloon mm-hmm. parce que yàlla lam leen dëgaloon daf leen wax ne dana leen nattu mm-hmm. waaye ginnaaw nattu mën a dana leen dimbale nee na ñu nen moom nii ne am nañu jullit ñi di jaaloon ay gars yoo xam ne sa dogoo dëggal nañ maanaam nga xam ne maa doo dalaan dinañ àndaa yàlla naa lay ci moom am na jullit ñoo xam ne ñu nii xale boobu la mu tàng tàng tàng ak jaawle yi saaro di saaroo mhm. teewal teewal li nga xam ne moom lañ ko daan defoon ak yàlla mhm. moo war ne seen tànk dina dëgër mhm. eh, bi ñu daw mukk ci xeex ak yeneen tamit ñoom lañ waxoon ko ba mu sëkk moom la noon na jënam moom koo ne xam naa jeexal boo soxlaam ba mooy faatu na am na ñoo xam ne ñu ne faatu nañ moom la na ci itam moom koo xam ne kii ne yan ko sëkk mu ngi mu ngi mu ngi na ci ñoo xam ne ñu ne gaañu nañ dee nañ ci xare yi wala dee nañ ci seen kawlal am na ci nag ñoo xam ne ba tey ñu ngi dund wa maa ba loolu te wattuñu tasdiiral ak wattu mm-hmm. li nga xam ne moom lañ doyalante woon yonente bi ko tum ci dara mm-hmm. mais si yaay ngeen na fay allah yàlla saaka fee la koy dëggal yi dana mhm. leen fayee bi jëf kii si dina dëggal mhm. yomaa si mu buggal ak mu mhm. naa fekkee na naa fekkee incha allah bu fekkee dina soob na ko moom yàlla bu ko soobee mu buggal leen bu ko soobee itam mu dëppal leen ak topp mu dëppal leen ak tur mu nangu leen tur topp mu nangu leen ci ñoom dina daa naka yàlla kaa nekk na ko xool li jégale akoon te ku ko eh, kutoo reximan li yërëm akoon itam koo xam ne kii nii eh, looyee man de yàlla maakoon koo xam ne kii nii looyee man de yàlla maakoon ko tuub. dina laa nag yàlla kaay nekk na roboon di jégalu yaakoon. nekk na itam la ximan de yàlla maakoon. kuréel yi nga xam ne yii nii moo doon kuréel kuréelu yéefaree dañoo doon waa Quraysun mhm. ak Xatafaan ak Bani Nadir mhm. ñoo war a delloo ne allahu yàlla alladina mhm. gaa yi nga xam ne kafaroo wéet nañ ñoom yéefar yooyu ne ñoom nee na borom bi tabaraka wa taala dàq na leen ba xëy si yéen ci benn la ngeen naaloo amuñu xëye nan noteel jotuñu woon benn ci julli yi jotuñu kenn ci julli yi la ngeen naaloo dindi loolu matu loolu ñoo mën dindi dindi nee na waka waa tegal na allah yàlla mhm. ak moomu dina julli bi mhm. tegal na ne alxuraan mhm. malaaka yi nga xam ne yi wàccee na ko ak ngelaw li nga xam ne li ne dàq na noon yi waaye ba tey dañuy ñibbi tax xamul ak pexe moomu li nga gis moom mën naa ay ma defoon noonu de wakamaa doy na wakaana nekk na allah yàlla xawi mm-hmm. yéen da aji kàttanu mm-hmm. nekk na itam masidan da aji da aji noot mm-hmm. waanala wàccee na allah yàlla allafina ñi nga xam ne waana boobu dimbali nañu leen ñu andi kitaabu ci ñu andi kitaabu wàccee na leen ñu siyaasi yi ci seen tataya waxasoo mu sànni fi xulo bi ci seen xol ya sànni na ci aroon ba tiib bari xan yi kuréel taqapoon yéen a ngeen ngeen leen ay rey ba pare wa taasi wala yéen a ngay jàpp tam bari xan yéen a ngi kuréel ba nga xamee ne waa Quraysh ni daw nañ dellu ji Màkka mhm. waaye waa Xatafaan ñoom itam daw mhm. kuréel yi nga xam ne yi nag ñoo des mhm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dëpp na ci ñoom leneen nag gannaaw nga xam ne dañoo woo yeneen man ci biti di di ànd ak moom da xeexal da xeex yonente bi di ñoom xollante woon nañ ko lëne di xeex yonente bi kon nag na ngeen na ngeen yéen ni bët ñu leen ñu ngi jëm ci seen kaw waaye moom itam xisa bi ko tax nee na borom xam-xam yi nga xam ne jàng nañu siira wax nañu ne. Mhm. ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëyee ci guddi gi nga xam ne nasaab yi kuréel yooyu la dellu nañ ko. Mhm. ñoom waa Quraysh dellu nañu Makka. Mhm. ñeneen dellu Xatafaan. nee nañu ne yonent bi dafa xëy am wàññeeku dëkk dëkk si Medina. bi mu ñëwee ba waxtu tisbaar jotee boobu mm-hmm. di ñëw bu ma ñëw mu ngi am benn kaala mm-hmm. boo xam ne génne mu ngi bàyyi ko ci li ñoo istabraq mu mm-hmm. ngi war ci benn bax la boo xam ne bii nii bu weex la moo wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu yonente bi defe na ne wàcc na ba mu ngi raxas boppam ba genn wàllu bopp bi sax raxas na ko mu ne ko yonente bi yow nag yaa ngi sa gars yi yéen yéen a tuddal ngànnaay ndax da ngeen a tuddal seen ngànnaay yi mu ne ko waaw jógee nag ne ko mm-hmm. yow nag yaa tuddee gum sa ngànnaay mm-hmm. waaye malaaka yi nga xam ne yéen ñoom la ñoom la la yàlla boole ñu la dimbale mm-hmm. ñoom diit ñeent guddeeg yoo xam ne yi ni tëral ñoom ñoom wàccaguñu daal yàlla nag sant na ni la bul soxla na nga dem ci bënn xuree sota jogal léegi nga dem ci ñoom loolu ndax siital naa leen. tey ubbi naa tëj naa itam dëkk ba. dugal naa leen itam ci rëng-rëng yi. dugal naa leen itam ci njàqare. wala yéen tamit suñu daan nekk woote. woote wax ne daal képp koo xam ne kenn nii. toppkat ndigal nga. buñ ci tàkku sa mukk. lu mooy ci benn xurey sata. ndax ñëpp saaba yëpp jógandoo dem ci benn xurey sata. bañ demee ñu def leen xisaar mooy ñu daw leen. génn ñaar fukki fan ak ñaar fukki guddi ak juróom yoo xam ne nii. ñu ngi daw benn mais ñooñu nekk ci benn digg benn digg mënuñoo mënuñoo génn. ba nga xamee ne gaaw boobu la sonal na Bani Qurayza mhm. te ñu ragal lool jullit ñi itam mhm. la leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nag ne leen mhm. léegi nag bu leen neexee ngeen wàcc suuf ci suma xàtte nga xam ne nu ma xàtte rek ngeen def maanaam de ñu bañ ne daal léegi daal d'accord nañ ci sa saaba bi ngay wax sax dund maanaam ndakaanu loo ko loo xam ne ne la gis ne suñ suñ diggante yow mooy nu mu ko attee suñ diggante dañu def noonu de fekk sax dund maanaam moo doon kilifa ak awsu ñoom na ay xulafaa lañ woon ci aw aw nañ gënoon a jaxaseel. jaxasoor. Mhm. xam nga da mhm. nga ñu kontaan ci loola. Mhm. sanadu nag wax ne. su fekkente ne nag dañ may àtteloo. man danaa àtte. li may àtte nag moo di ne. ñëwoo di yokk ci biir góor. bisu keroog bi nañ la rey. li ci dee alal. li ci dee bu ne wala muy jigéen. dañ ko jàpp def ko muy jaam. ba nga defee ñu ne ko àtte boobu wala ñu ne ko àtte boobu la nga àtte day mhm. mooy àtte bi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom la àtte ci kaw asamaan juróom-ñaar mhm. ba nga defee ñu tëjee leen ci kër baa ñuy wax euh, euh, bint xaalis ku bëri na jaar mhm. ñooñu de eh, ñu dem ca booba jëm ca marché ba. Mhm. ñu gas fa benn xandax. Mhm. benn foo moo xam ne nii mu rëy la. ñu mhm. yónnee par kenn par kenn. ku ca xam ne ku ñu ku ñu rey rek ñu ñu waxoon noonu. ñu ngi leen fa rey par kenn par kenn. ba ñu xajum ne ak moom la nga xam ne moom gënoon ci sax keroog bisu keroog boobu lañ ko rey. fekk nag ñoom dañoo dëkkoon ci biir dëkk bi. te ba yónnante ba ñëwee. ñu defoon moom ak eh, eh, d' accord ak woon ci ne fekk ne du. du ñu jëlee noonu mukk du mhm. ñu taax yonente bi mukk mhm. te du ñu ànd ak noonu bu bàyyee ko ci jëkk mukk itam da taax yonente bi mhm. te kóllare googu nag firi nañ ko te ñoom ñoo waxoon ne su fekkente ne firi nañ ko lële nangam ak nangam. Mhm. nee na rey nañ si ñoom. Mhm. loo xam ne lu lu war dem ba juróom-benn téeméer wala juróom-ñaar téeméer. Mhm. ak Abi Taalib ak Zubayr ibn Awam. ñoom lañ santoon ñu doon leen rey. nga xamee ne dañuy ñañ ca war a rey ñëpp rey nañu leen. sax du mi nga xam ne moo xàtte woon xàtte bi. nee na foofu la faatoo. ci benn jëm-jëm boo xam ne bii nii ci xeex bi ko jiitu woon ci la ko ci la ko dalee. nee na keroog Dundu moomu le. kilifa la woon ci aw suba faatu keroog ba mu faatoo. nee hmm. na Aboubacar Omar nee na jooy nañ ci jooy yooyu jooy yu rëy rëy rëy. Hmm. ndax de daan fàttaliku seen jooy hmm. dafa nekkoon kilifa ci saaba yi lool. moom lañ xàtte la woon nag mu xàtte woon xàtte boobu la ci yëwoon moom la wax na ne ñoom ñooñu la ñoom ñooñu la ne waa la wàccee ne àll Sénégal yi yàlla wàccee na. àll Sénégal yi nga xam ne faaroo ñoo dimbale woon. yéen bëri rek min ahlil kitaab yi mu mhm. leen naroon a dimbale ci ñuy laaj ci yeneen tamit mhm. ndax noonu moom noonu bi ci daqaar ndox mhm. moom noonu bi ci daqaar sax mooy noonu bi nga xam ne bii nii da ngaa dëkk ak moom ñoom dañoo nekkoon noonu yoo xam ne yéen dañoo dëkk yeneen tamit da joxoon nañ ko kóola leneen ne duñ ko xeex mukk gannaaw yëguñu lu lu mooy ñu génn si biti si wuti ñeneen ñu leen ci dimbale ñu wàccee min siyaasa yi mhm. ci seen tasa yi waxasa wasanni na seen xolo bi ci seen xole arom ba téef bare xan yi kuréel taxatu loon yéen a ngi leen lay wataasi mhm. loon yéen a ngi leen jàpp tam bare xan yéen a ngi kuréel mhm. waaye arasagum donn loon na leen ardawum moom yàlla ardawum suuf si yow yooyu le ba diyaadawum ak kër yow yooyu le waaye wàllawum ak seen salari waaye ardan ak yeneen tur yoo xam ne yéen ji lan ko toloo di yeneen tur yoo ay yoon ñu ko dëkkee woon su yooyu ne itam da ngeen ko mos a nangu wakaara nekk na allah yàlla xadiran daaje wala ala kulli shay'in ci lépp loo xam ne ni namm na koy namm na koy amal yaa yaa nabi war ba ma leer waa ji ñi ñaan sa soxna yi fekk soxna yi dañuy ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tawatal daal néew doole boo xam ne génn yi ñàkk solo boo xam ne génn yi seen seen dund dund ko yonente bi ñàkkee na ko solo li ñu koy neet ne mooy la Ababacar Sadiq waaw dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. da ko nuyu mm-hmm. na nit ñaa ngi toog ñun ñëpp ci bunt bi mm-hmm. kere yonent bi bëgg kenn waaye di ubbi na nag Seydina Bakar mu tàbbi bi mu ñëwee kenn eh, ñaan ndigal ñu ñu bëgg ba nga xamee ne bi ñu dem nañ fekk yonent bi mu toog wax naa ni itam ñu ñu ko fekk Seydina Omar yàlla mayoon na ko pétuña ba toolam mm-hmm. bi yëpp boo xamee ne bii ne yonente bi dafa xëy daal karkana moom xaw a ñett mm-hmm. keroog moom dugaloon nitu reelekat mm-hmm. waaye keroog moom bis boobu dana fexe ba wax loo xam ne yonente bi dana ko reyee moom Seydina Omar li mu nekkoon nekk nit ku ñëkk noonu teewuloon bis boo xamee ne yonente bi moom xëyee na karkana bu tàlliwul rek dana fexe ba faat lu mu waxee loo xam ne yonente bi dana ci reyee kenn nag ñi nga xam ne ñëw nañu fekk bi mu ngi tëju. Mm-hmm. mu may na Seydina Bakar mu dugg. Mm-hmm. moom itam mu may ko mu dugg. dañ mm-hmm. duggee na fekk foofu naan yaa ko wër. mu mel ni ku nekk ci jaaxle. Seydina war ne damaa wax ci sama bopp ne. yéen dinaa wax loo xam ne li dinaa ci weeloo yonent bi. ma wax yonent bi ne ko. waaye tey ko eh, yonent bi bëgg doon sama soxna. xaar yéen. ñëw ne daf may laaj ci dépense. dama jox rek mboq laa ñëw rek bas bas ko rek mu daal. bu ñu leen di sallallahu alayhi wa sallam ree. loolu la ñu war a dugg. dëgg la dëgg la ñu ngi nii loolu la defal nañu ma laaj ñu. léegi daal rek seen naa Maka Diop. jaar ñu Aysa. fes ko. waaw moom itam jaar ci Hafsa. fes ko. kenn ku ne nag ba ma tas doomam mu ko naan da ngeen a laaj yéen loo xam ne léegi amu ko. mu leen ko laajatee loo xam ne léegi nii amu ko. ñoom ñëpp ñu ne dootuñu laaj laajat yonent bi loo xam ne léegi amu ko. moom nga demee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daru leen. loo xam ne léegi mën na weer. loo xam ne léegi dafay doon mën tey ñoom. waaye waxtaan bi ñoom waxtaan waxtaan bu yaatu comme ni ñu ko daan defee. boobu nag ci la aaya ji wàccee nag. beneen aaya doon la. ba aaya ji wàccee nag. te aaya ji dafay wax daf leen wax ne leen da ngeen ay tànn bu fekkente ne àdduna ngeen bëgg mm-hmm. kon ñu jox leen yóbbal xebal leen ngeen ñibbi ci seen kër yi mm-hmm. lu ngeen fu ngeen xam ngeen dem bu mm-hmm. fekkente ne yonente ngeen bëgg nag ak yàlla ngeen bëgg nag kon nag da ngeen nekk nag dem yi ndax kër yonente bi dóoru kër boo xam ne génn neex la ba aaya boo wàccee ne yonente bi xoo soxna yi waxtaan soxna yi tàmbalee ko nag Aïcha mm-hmm. ni ko daal léegi ma la gaaral loo xam ne nii mm-hmm. na nga tontu waaye bul yàkkam ci ci tontu ba na mm-hmm. nga ci diisoo sa say wajur jëkk léegi daal borom bi nee na kër gi moom doon kër bu ñaaw bu fekkente ni àddina la gërëm nañ la jox yow ba nga dem seeti fooy def fooy doxal nañu sa àddina fekkente ni yàlla yonent bi moo la gënal kon nga toog fii waaye nag bala ngay toog fii nga diisoo sa wajur mu ne ko Aïcha wax yonent bi ne ko su ma diggante yow awa dina maa diis su ma wajur Mm. ànd ak yow. Mm. ak ak ak yàlla. Mm. ak xam àllaaxira moom moo gën a àdduna. Mm-hmm. mu mu laaj soxna yi de soxna yi soxna yi kenn ku ne. Mm-hmm. Eh, nga toll tontu boobu. wala mm-hmm. booba la fa yàlla wax nañ ne ko nag. suuf si man saa yu na mu tudd ndek man saaw. ñu ne ko nag ñii nag. ñi xam ne ñoo nag ñii. ñii aw xam ne ngor na ci mu ne ko yaa ayyuhan nabiyyu qul waxal li azwaajika ñeel say soxna. in kuntunna bu ñu nekkee ku ñu ne di namm. alxayaata dundaa dunyaa bi daal di jege ngir jeex. wa zinatahaa ak taaru àddina bu fekkee ne àddina la ñu bëgg. ak taaru àddina. ba temps lay na kaay leen umatin kunna mu yóbbal leen. oo saleen kunna mu booyal leen. salaam booy jëmee leen boo xam ne bii nii bu rafet la. fekkente ne àddina ngeen bëgg. ak ak àll ak dundu taaru àddina képp ngeen bëgg. kon nag ñëw leen ma jox ma jox. wax leen yóbbal ba mu doy ma yebal leen booyal leen booyal boo xam ne génne bu rafet la da ngeen kontu na bu ngeen nekk yéen su may soxna bu ngeen ne dinañ àlla ak yàlla wa rasuloo ak yeneen daal fekkente ne ngërëmal yàlla ngeen bëgg ak ànd ak yeneen tëgg wa daara ak kër ga laa sama bëgg daal di mujj tamit àlla muy àjjana deen laa naka yàlla a ah, daqaru na leen moo sonaate ñeel way way rafetal yi leen moo sonaate leen kon la ñaan way dafa tali mën ko na ci yéen mm-hmm. xarul na leen mm-hmm. ajilan xarul na leen ajilan fay mm-hmm. xam ne nii bu màgg la ba nga defee ñëw ñëpp ñu tànn yonent bi wa sallam comme niñ ko waxoon noonu mhm. ñu a ko yaa nisaa nabi yéen jigéen yonent bi mhm. man yaa ci kulli génn min kunna loo xam ne leneen lu bëri la mhm. yéen daal yéen yonent bi yéen jigéen yonent bi bokk leen ak jigéen ñi ci def dafa leen bu kenn ci yéen duñu ko xamee lu jagade loo xam ne lu feeñ lay doon ko ci def kat ñu taxam dees ko ana saa bu mbugal dina ko ñaari fulam ko mbugal comme ne ab jullit la yàlla ko mbugalaat ko comme ni comme ni comme comme ni soxna si yéen a tëjule loolu nag moom la ñuy dénk mboolem soxna yi mm-hmm. ñoom itam daal dañuy war a xam sag boo xam ne bii nii mm-hmm. dafay doon sagab jullit mm-hmm. dellu doxaati na saare ko loolu bugal leen ñaari bugal i so leen laaj ñoom mën a laaj yàlla